waaw ça c'est vrai ma ne ko ça c'est mais quand yaa ngi ci jàmm rek. alhamdulilah siyaare bu baax. naka université. waaw ñu ngi doog a démarrer. ñu ngi ci ay arrangements yu xaw a compliqué nag. mais exactement reprise graduelle boobu nga xam ne bëri na coow mais mais loolu lan la exactement. reprise. graduelle bi étudiants yi di kaas ak ku nekk di kaas. xam nga dañ noon xale yi nañ xaar comme que ñoom dañoo xaw a bëri première année deuxième année ñoom ñooy gros de de la troupe. ñu ne mag ñi nañ ñëw euh, licence ak master 1 xale yi mhm. bañ mhm. dañ ñoom ñëppay jàngandoo dañoo bëgg jàng mhm. finalement on a trouvé des solutions ñu ngi commencé ci ñu ngi ñi ngi ci matériel bi pour xool classe yi ni ñuy def ba nga xam ne dañuy mën a jël ñëpp actuellement. mais ñoom lan lañ ci doon ragal ba tax ñu ñu doon ñu doon kaas noonu. ah xëy na seen xel dafa tey ci ne ñoom seen rakk yi suñu leen bàyyee jàng si wuñ ñoom mag ñi ñu jàng ba pare xëy na euh, njàngu xale yi mën na sooxe. ñu ne ñoom dañu préféré sax xale yi jàng ñoom mag ñi ñu dem sax au moins def en ligne te defe naa ne aussi lu xaw na logique la ndax bëri na ci xale première année deuxième année yoo xam ne nii technologie yi tout ça là mën leen xaw a sonal tuuti ok ak am les moyen te ñi ay mag lañ ok ok mais finalement tout cas chez nous à la FASEC je crois que am nañ compromis xale yi d'accord nañ ak direction bi mhm. ba su soobee yàlla ñu ngi ci pour démarrer semaine bii daal merci beaucoup. jaajëf jërëjëf sucre baa ngi noonu ci wet bi. voilà merci. waaw mais ñoom day bu ñu comprendre je pense que man naa ngi dégg sax ñuy wax ne euh, waa euh, Université Gaston Berger Saint-Louis. Mhm. ñoom daccord accord nañ pour reprendre le cours là. waaw non bàyyi bàyyi li doon def quoi. je crois que je crois que ñoom ñëpp xam nañ ne aussi euh, lii seen intérêt la. Mhm. intérêt réew mi la ndax année blanche kenn ñaan ku yàlla. waaw ça c' est dafa bëri ay conséquences. Euh, te at yi dañuy fekkante si ok te loolu première année déjà ñun fii ne ay ay première cinq mille personnes mhm. xam nga ñu am baccalauréat soo leen xaaree suñ ñëwee ça va exploser mhm. doo am foo leen def donc je crois que impératif la woon a ah, euh, xale yi baccalauréat yi lycée yi yàlla jàppale na leen dégguñu sax benn ko benn feebar moi je crois que ak geste barrière yi war nañ ci mën a dem waaw kontaan torop ci euh, kayu bi bég loolu dama ne nag kër gi di nga fi ñëw tey xamanteeg borom kër gi xamanteeg waa kër gi euh, dox rek léegi nag man maa mujj di defaral gan gi café defaral sama bopp café ngay dox rek alaaji xam nga il était convenu wax waa professeur mbaa yaa ngi si jàmm maa ngi lay ziar bu baax ziar naa la bu baax a baax mbaa accueil bi macha allah ah, waaw waaw baax na ah. <laughs> baax na fi ak hôpital la doon teg départ Covid bi dama ko ci doon dégg. mais <laughs> macha allah mu liggéey ci lu am solo. Uh-huh. mais n'est-ce pas vingt cinq experts yu organisation mondiale de la santé. Uh-huh. il en fait partie et c'est une fierté pour l'Afrique ah pour le Sénégal. Ah mais également pour la banlieue. félicitations. un digne fils de la banlieue. loolu kontaan naa bàyyi comme comme comme professeur ñëw bàyyi ñu jox ko. <laughs> professeur ne woon naa la alaaji bi dafa dafa gentil dina la accueillir ci ni mu waree. merci. ma ne woon naa doxantu doxantu bu sew rek. waaw yàlla ma taseeg moom. waaw ñuy ci Covid beeg xam nga man yooyu damaa ñor. te ci laay dox du xam nga ci loolu. loolu moom am na. te xam nga dañu ne engagement communautaire. donc tout le monde s'y engage. no kër gi sax tey dafay ala daw mais xam nga lu ah, tax waaw parce que boo indee ku mel ni professeur Daouda Ndiaye. Mhm. ku mel ni euh, professeur Maysa Babou nekk fi. waaw cest à waxtaan wi ci boppam il faut que mu ala daw mais que ay borom xam-xam ñoo ñëw ci kër gi. te nag am na benn surprise boo xam ne xaw ma kañ lay yegsi moom dama la wax surprise bi. Ah, kooku day yegsi rek. waaw maman d'abord. yegseegul de maman yegseegul de. moom lan moo ko lan moo tax mu mu mu yéex ñëw nii. Hmm? mais ma fi di tey dina teel ñëw d'ailleurs. ma. lu xewati. ma. ay xam nga nag. <laughs> non neexul ba neexul non c'est vrai que Pikine la dëkk. raison parce que xam nga lan moo tax gis nga boo toogee ci sa appartement. Mhm. toog ci sa néeg sa sa sa toit seenut. Mhm. yëkkati lal. Mhm. tegoo sa ndab. ci kaw mat laa di ci lekk. say doom patogé wuñu santal yàlla askan waa ngi dund lu métti métti maman yaa yee tardé. baal leen ma de. waaw moo am. am na kuy sonné am na koy sonné ubbi la kuy sonné waaw. ubbi la kuy sonné ñu doog la gan yi moom nag dafa nekk koo xam ne moom lépp lay dugal laam nañ am sunu kilifa ñëw na. macha allah ah, ñu jël ko macha allah macha ñu ngi lay ziar bu baax a baax toogal ci ci digg bi. d'accord ci digg bi sa kër la. <laughs> ñes ba sonnoo ci yoon bi macha allah macha allah dalal ak jaamu macha allah ayca jërëjëf ayca euh, sëñ bi Niass professeur Daouda Ndiaye yaakaar naa xam nga ko macha allah euh, professeur Maysa Babou Ahmed Khalifa Niass yaakaar naa xam ngeen ko waaw ñu ngi siyaare bu ah? kon li ma doon mi ngi nii kon xam nga ne tey ji moom euh, yaakaar naa ne jotaay bi jotaay bu neex la fii nag jotaay la kër la di ma koy faral di waxee rek euh, mbokk téléspectateurs yi euh, bisimila laa leen di wax yegg si ngeen ci seen émission Kër Sidi euh, Kër Sidi nag nekk kër goo xam ne dañ fiy waxtaanee lépp loo xam ne dafay defar réew mi di fi waxtaanee lépp loo xam ne dafay jëmle réew mi kanam ndax nag mag ma daf ma doon wax naan réew bu buñ ca nekkee nañu fexe ba di ko pencoo te bañ koo pàccoo kër gi nag looloo ko tax a jug te bu ñu ne Kër Sidi yaakaar naa ne xel yi dina dem ci wàllu démocratie xel yi dinañ dem ci wàllu diine xel yi dinañ dem ci wàllu yaatal xel yi dinañ dem ci euh, euh, euh, luy jëriñ askan wi ndax loolu rek la mu sa bëgg kon nag tey jii bu ñu nekkee kër Sidi yaakaar naa ne loolu rek moo mun a am ci kër gi di wax mbokk téléspectateurs yi ne leen itam kër Sidi nag ñun dañoo signé contrat ak groupe Walfadjri ñooy ñëw suñu kër filmer ñu yóbbu lay xew ca kër ga kon nag nay leer ñoom itam ñu yem fu ñu leen yemloo ndax am na nag ay waxtaan yoo xam ne ñoom waa Walfadjri waruñ ko génnee kon ja suñu kër lañ ñu fekk te comme wax nga ko nag euh, chéri mon amour dama rek mm-hmm. daal di dëggal euh, ndax bu ñu nee kër Sidi euh, xel yi danaan yaru ci kilifa gu màgg ku tedd kooku lee mm-hmm. de la justice de Lamine Niass liggéey fi nag liggéey bu am solo pàcc bu rëy a rëy tax nag ñun ay njabootam ñoo ko fas yéene toogal biir këram mm-hmm. fii nag comme ni ñu koy waxee kenn du fi lebe kenn du fi fayee bor waaye nag lépp luy leer tey teraangay àdduna te ñu ko fas yéene waxtaanee mu jëmale àdduna bi kanam mm-hmm. daañu ko yaatal ba mu yaatu ngir waxtaanee ko nag itamit ak ay gan yu am solo comme ni ñu ko defee ni tey sunu papa sunu kilifa ci kër gi Laaji Ahmed Khalifa Niass mm-hmm. am nañ aussi boroomi xam-xam ci réew mi nga xamante ne kenn dootu leen naatable ku ci mel ni professeur Maïssa Babou waaye également euh, ki nga xam ne moo di professeur Daouda Ndiaye kenn dootu ko présenté ti mu mel ni tey daal dañoo def cocktail actualité. voilà on va parler actualité. kon nag nañ leen bàyyi ñoom itam ñu joxe seen salaamaaleykum parce que comme groupe Walfadjri fi mu toll nii. Mhm. xam naa ne ñëpp a ngi seen saal yi toog di seetaan émission bi. foog ñoom itam ñu ñun moomatuñ suñu kër. Mhm. waa Walfadjri booy voilà am na ci droit. yor seen caméra professeur ñu bàyyi ko rek. di ñu professeur <laughs> <laughs> mu nuyoog mbokk yi ñu bàyyi la nga nuyoonteeg mbokki téléspectateurs yu TV ñu may leen tuuti image. <laughs> asalaamaaleykum waaw noonu la maa ngi leen salaamaaleykum. di leen sant ci invitation bi. di teg nuyoo bi yëpp nag sunu euh, sunu loxo kilifa. Mm-hmm. ma koy woowee xalif. parce man jàpp naa ne loolu taxawaayam loolu la ñas mm-hmm. euh, di la jox sa wàccuwaay. Mm-hmm. di la sant bu baax nag ci sa taxawaay ci réew mi. Mhm. rafet na te dañ koy dañ koy ndamoo ci ab ci bitim réew mhm. euh, ñun ñuy tukki xam nañu lan ngay représenté ci Sénégal ak ci bitim réew donc toog ak yow fii ci jotaay bi dañ koy sant yàlla euh, wax ne am nañ ci contentement bu rëy di ñaan yàlla nag euh, toujours ñu jëlee ci yow toujours njëriñ comme ni koy defee donc ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax xalif di nuyu également suma grand frère suma collègue professeur Meissa Babou boo xam ne également moom aussi ci wàllu économie référence la ci Euh, macha allah euh, muy koo xam ne daal tey ndamu Sénégal la moom tamit parce que quand il parle euh, da nga xam ne xam-xam ngi wax. loolu dañ koy sant yàlla. donc di la nuyu yow aussi bi tey di nuy Aïcha parce que également di nag teg nuyoo bi yëpp ci kër loxo kilifa gi. ñaas parce que tey lii yëpp ñoom ñoo ko waral. mais loolu dañ ko koy encouragé cité dina wax ne am sant yàlla daal jàkkaarloo moom pour la première fois sant yàlla loolu moom may nga ma ko maa ngi la ciy sant ay soy it mhm. en tout cas maa ngi leen di félicité di rafetlu bu baax seen invitation bi di wax ne privilège la pour mois mhm. li ngeen ko tuddee ëtt Sidi mhm. euh, kër Sidi kër Sidi koo xam ne li mu liggéey ci Sénégal man bi may nekk xale ba léegi dañ koy dégg je me rappelle six heures du matin dañ ko doon déglu muy wax bu waxee ci alxuraan nga yaakaar ne war xam mhm. bu ñëwee wax ci ay livre bi yëpp li muy bind livre nañ ko mhm. donc tey moom moom moom moom moom benn loo ko xam ne la tey ci histoire Sénégal bu noo ko bindati sax moom mhm. dafa taxaw wax naa ko fu furul fii nag te ñi may dégg ñu may xam euh, Sidi à l'image de son frère dañu liggéey àdduna liggéey askan donc yàlla na ko yàlla xaare àjjana amiin yaa rabbi yàlla na ko yàlla xaare àjjana teg loxoom njaboot bi amiin yaa rabbi laa doon nuyoo di nuyu mbokk yëpp du nuyu waa télé bi yëpp mhm. leen sant di gërëm di ñaan yàlla rek mu dimbali ñu ba leen fi wax mu nekk njëriñu askan wi jërëjëf jërëjëf professeur euh, euh, di waxtaan bi nag nuyoo bi neex na trop waaye xam nga ne dinañu waxtaan man ak yow te su ma la nee dinañu waxtaan rek dinañu waxtaan professeur Moussa Babou naa ne yow moom commencé woon nga waxtaan ak alaaji bi sax waxtaan yi am solo maa ngi koy dégg ci bunt bi dinañ ci gën a xuus incha allahu rabbi ci lu jëm ci wàllu koom waaye dañ lay bàyyi rek nga nuyoonteeg mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu jërëjëf Aïcha maa ngi lay siyaare di la nuyu di nuyu sëñ bi tey kontaan naa trop dellu si fii naa expliqué tout à l'heure mais ma euh, ànd ak euh, professeur Ndiaye comme li mu wax léegi c'est euh, mu mu jotaay bu mel nii nga am ku toll nii macha allah dañ koy rafetlu parce que comme que yàgg nañ ko dégg te xam nañ ko professeur la comme ñun suñu te xam naa ne moo ñu raw mhm. dañuy taaslu ci yëpp loo xam ne nii xam-xam la. ñu te ñu ñu teeylu ko maa ngi koy sant di ko gërëm. Euh, kii moom suma xarit la euh, bi ñu mujjee tas ci benn émission xamu bandati la mais oyof bii rek laa gis. Mm-hmm. yàlla xam na te amul jot de. wax dëgg yàlla mu jot. docteur corona heure bii. Uh-huh. amoo jot mais il faut ñu communiquer. Uh-huh. il faut ñuy communiquer par conséquent sorti yu mel nii. defe naa sax boor na bokk ci seen agenda. pour ñu mën wax ak nit ñi daal. Hmm. ba ca des nag mooy kontaan ndax kër Sidi. Uh-huh. man œuvre bi ma doon création Sidi Lamine Niass la. macha allah man maa dem j'étais plus jeune il de quinze ans jàngale sësti ñoom Omar ñu fi njëkkoon a nekk. Uh-huh. ñu gis ma rek ñëw. ne lu ñuy laaj laaj leen ko baaw sonal ma indi ma fii ci rajo bi ma def ay définition définition si di dégg ma mu mu ma gënuma fa ëpp xam-xam mu teg ma diine jamono boo xam ne moom moo koy animé te ku ko xam xam dimension première émission bi rusuma ko wax je tremblais comme une ndax ndax xale laa ki ma jàkkaarlool xam naa ko mhm. te bëggumaa wax lu ma réew mi di xeebe mhm. yàlla defal may suutura ñu def émission ba benn yoon ñaar yoon ñett yoon mu ne réew mi su ma ciy wax économie bëggatuma koy làkk di wër ndax toog naa baabu ne ma marché Touba de lii am na fa mhm. nee na ma marché ti leen lii am na fa lii laa doon seet ndeysaan booba ba léegi man ak moom su ma génn ñu ne ma doomu Sidi nga ndeysaan première fois bi ma TFM njëkkee invité bi ma demee dafa am ñu ne yéen xanaa da ngeen di xaru hmm. may sa sababu mi ngeen indi fii ba suba yéen moom suba moom yéen ngeen am affaire Sidy Lamine kii Sidy borom de man leen wallaay moom moom moo ma créé tey fu ma toll waaw wax dëgg yàlla moom laa koy sante xam naa ne barke bi damaa topp ndax dem naa ba fi nii moom mi ngi nii rek su ma génnee fiit maa ngi dugg feneen dugg feneen loolu xam naa ne ñàkkul ñaan bu bu ma ci defal wala bokk moom xëy na bëgg ba ma bëggoon yàlla moom ma ci defal sutur yëpp daal kontaan naa daal vraiment <laughs> pour wax ne fii moom sama kër la ñu soxla ma ci rajo ci télévision heure bu mu mën di doon lu may def daanaka dama koy bàyyi ndax ci laa bokk jërëjëf kon ma bàyyi la nga dalal waaw sëñ bi Niass Euh, ñu bàyyi la yow itam euh, nga doon nag euh, koo xam ne wax dëgg yàlla tey jii émission bi di Kër sii Sidi yow nga bokk itam ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njëkk ubbi émission bi muy premier numéro bi tey nga ñëw fekk ñu toog ci jotaay ji dañ lay bàyyi yow itam nga nuyoo ak mbokk yi téléspectateurs yi. jërë ngeen jëf ma tàmbalee nuyoo bi ci yéen ak ñun ñu baax ñii. nga xam ne dañoo tedd par xam-xam xam-xam mooy cër bi gën a rëy bu doomu aadama mën a am sinon mook mala yi ñoo yem liñ bokkit bari na ku gis nit gis mala xam na ay bokk lañ hmm. ndax nit lekk mala moo koy tax a dund hmm. te buñ bokkatoon nit bokkul ak dara xeer moo tax bu lekkee xeer de donc maa ngi leen di tatagal bu baax a baax ci kër sii di sama rak ñoom ci arab oustaz lañ tudd professeur yooyu jàngale ci université oustaz lañ leen di wooye kon ngeen mën a comprendre côté bi nga xam ne damay wax ne ñi ñiñ koy tuddee fii ci Sénégal doonuñ ko waaye nag comme xam nañ ko bu tuddee mais nañ xam ne au moins doonuñ ko ndax gaynde njaay la sant muus sant njaay te niiru nañu lool waaw Sidi nag di sama rak lenn rek la fi fekkoon ñetti yëf lu mënoon yuñ ko réservé loon benn mooy yalwaan ñaareel ba mooy tareex ñetteel ba mooy waare prêche mhm. loolu nekk par congrue mhm. donc mu nekk koo xam ne dafa war di déglu rajo war di seetaan télévision mhm. war du war na jàng journal bi mais ñu jàngal ko li ci nekk comme ñi mbokkal révolution bi mu def nag mooy li mu wël li loolu nekk moom rajo ba ñuy déglu nekk télévision ba ñuy seetaan nekk journal ba ñuy jàng donc ñetti yooyu wëlbati na ko loolu mooy révolution ndax baatab révolution ak baatab rool ñoo bokk cosaan mooy ni muy wëree noonu mm-hmm. donc moom affaire bi bu doon ci suuf lañ ko defoon moom yéeg na ba ca kaw te loolu itam dootul dañ soobe yàlla mm-hmm. ndax bind na bàyyi fi liggéey bàyyi fi jur bàyyi fi te yooyu yëpp yéen a ma gën a xam ne yooyu yëpp ay qualité la mm-hmm. kon nag ma leen man itam leen ndokkale leen ndokkeel ci li ngeen am xalaat bi def ko surtout ngeen indi ay borom xam-xam xam ne fii këru Sidi mënul nekk kër goo xam ne dañuy wax ay yëf yoo xam ne warul sax génn ci lam ñu nit waaw parce que nag wax dëgg yàlla n'est pas professeur qui te boo toppee àddina professeurs yi jàngale boo leen dajalee matuñu pour cent ci population àddina dëgg la kon nga xam ne loolu néew doole la mm-hmm. bu ma toogee jàkkaarloog professeur Daouda Ndiaye mm-hmm. te maa ngi koy dóora ji si jëmm ji mm-hmm. mais fekk na ma xam xam-xam bi bu yàgg ndax xam-xam bi dañ koo peese ca peese ba ndax lu toll ni OMS bu ñu toogee di peese di xool ci àddina bi Inde ak Chine ak Japon feneen ak feneen ñu ne kii moo ñu doy moo ñu war a wax li ñuy def loolu fierte la ci kenn ku ne ci ñun ñu di ko ci ñaanal yàlla mu defal ko ci tawfiq defal ko gudd fan defal ko it euh, njub gi nga xam ne mooy jub ak xol ndax xam-xam euh, du tere du tax a jub xol waaw yàlla dafa ne yudullu bihi kasiran wa bi bihi kasiran dana jubal xam-xam dana jubal comme dana dana dana def créé jubadi ndax ñi weddi yëpp ci xam-xam lañ ko teg mm-hmm. waaye ñi jubit ci xam-xam lañ ko teg te lislaam mooy diine xam-xam ndax moom rekk mooy diine joo xam ne demal dem leen jàngi mooy la jëkk wàcc moo njëkk a julli ji leen moo gën mu njëkk jàpp asaka moo gën a jà njëkk a wàcc leneen mhm. iqra jàngil lan ngay jàng li nga xam ne allama al insana ma lam yaalam mhm. li yàlla xamal nit ki te naru ko woon a xam kon nag diine lislaam mooy bi jiital xam-xam ci lépp mhm. njëkk koo santaane ci lépp loolu santaane la cay tegu dëgg kon nag mënul nekk lu muy diine xam-xam su fekkee ne da ngeen def kër goo xam ne li ko tax a jóg mooy na xam-xam wesaro mhm. fii ñu toog nii doo fi dégg jamais werante mhm. ndax ñoom li ñuy wax xam nañ ko xam boo xam ne mhm. buñ ko waxee bu doon ci seen spécialité la mais doonuloo ko du sere da koy dégg yow it boo waxee spécialité dañ lay dégg waaw kadaalika professeur Babou ndax moom suñu mbokk la suñu yaay ci dawaa dawal xaaj la dawal xaaj ak dawaa la ci diggante boobu la nekk mhm. Sidi Lamine ci boppam kiñ ko tuddee muy suñu maam Sidi Lamine bi jur suñu yaay mhm. kooka euh, maamam mooy Sidi Lamine wala tóori jenn di dawal xaaj xeetu dawal xaaj Amar Baabu Sugu yooyu yëpp mhm. ci foofu lañ dem ñoom nag ndesiti naar yu nekkoon ñoo feesoon nord du Sénégal FEDEB def décret na ñoom ñëpp nañ jàll ak seeni i gëléem ña fi desoon nag moom ñoo naar yi des Kajoor mhm. <laughs> dëgg la <laughs> macha allah loolu am na solo sëñ bi ñas eh, eh, eh, ndox la leen di jox wala café wala dara bala ñoo tàmbali waxtaan bi ndax xam naa ne est-ce que est-ce que professeur ndekki na leer na ma fii nga nekk sonal ko ci yoon bi. professeur ma euh, maman indi la professeur café se waxtaanam c'est passionnant. waaw te man ak moom dañoo bokk passion muy la santé. mu wax waxloo naa ko ba mu xiif. Ah, maman léegi kon waxal li nga bëgg professeur. <laughs> professeur ñu indi croissant ak café acca indi croissant jox ko jox ko café euh, euh, professeur yow sa baabu pareil mais j'ai déjà mon café am naa café ah non euh, café defar café de baax baax na professeur defar café non tey bi mais naa ba jox ko café mas yaa ngi jël sa tànk yi ndeyale ko tali bi waaw te te te moo te moo ne de sama tardé gi lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu tardé yëpp indil naa la waaw loolu moom gaa ki ma indil moom am na solo lool am na solo lool léegi sëñ Mees ñu indil la lan ak lan ñu nag yaay Chérif kon jeex na kon mi ngi noonu ci ataay ji waaw mi ngi ci ataay bi indaal leen leen ndox nga jox leen ndox ataay ma barke lu tuuti waaw jeex na jeex na <laughs> xoolal ki yaale <laughs> leen euh, ndox may leen ndox ba pare may leen ba pare <laughs> xaar ma dimbale ko tuuti acca léegi nag daf dafa wax lu am solo maman uh-huh. euh, moom ci kër gi la nekk uh-huh. euh, euh, liggéeykat la boo xam ne mun naa ko tuddee ne c'est une bonne mais pas comme les autres te di ngeen ci xam dara waaw di ngeen ci xam dara et puis dafa am lu bari loo xam ne dafay wane ci moom ndax boo gisee ni ak simple am doo comprendre yu bari waaye di ngeen xam yu bari ci kanam uh-huh. voilà kii kii kii mooy maman maman mu day waar. mais lim indi dafa am solo mu may tëleele. waaw acca du ma ci mën lim indi am na solo. maman dafa indi lu lu lu am solo. professeur euh, El Hadj dafa bi muy dugg léegi wax na lu am solo te mënuñu ko bañ a romb bañ ci wax parce que ñun ñëpp on est interpellé. ndax ay sénégalais lañu week-end bii ñu génn ça a été vraiment très difficile pour ñi nga xamante ni tey dund nañu mën bi taw yoo xamante ni tegaloo na ñetti fanu yàlla. mu daal di indi nag euh, daanaka mënd gu métti métti métti métti ñu ci bëri ci askan wi sax dem nañu ba mënatuñoo am temps wu toog di togg di lekk ndax tout simplement ndox yu dugg seen kër dem na ba am ñu ci ñàkk seen bakken ñi nga xam ne ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu mënee su ko naatable mu mel ni Sénégal moom ak mënd ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo dëkk professeur yow mi nga xamante ne nii Euh, digne fils de la nga tey banlieue bi ñoo gën a impacté wu ci li nga xam ne moom moo di mbënd bi boo gisee situation bi naka nga koy étudier déjà. d' abord euh, dañ koy sant yàlla. adduna moom lu am rek santal yàlla ba pare soog a wax leneen donc dañ koy sant yàlla bu ko neexal mu di leneen. mais comme ñu koy toog ba koy waxtaanee. sant yàlla la. donc bu loolu weesoo euh, ñu koy massawu également askan wi. parce que lu lu metti la. lu metti la te te loo xam ne la ku sañoon doo ko dund également di ko masaw état parce que gëw ma ne état rôle moom lépp muy def rek mooy askanam nekk ci jàmm donc bu ñu ñi nga xam ne ñu ngi koy dund également di masaw état parce que conséquences et yi ñoom mënuñ cee bañ a génn mënuñ cee génn parce que euh, ku sañoon saña boot dangay ngay fekk mu nekk ci condition donc de également di di wax également ñëpp ñi nga xam ne lor nañ ci uh-huh. Euh, yàlla na yàlla delloo ci leen li ñu ñàkkoon am na ku ma dégg na ñàkk na ci bakkanam uh-huh. yàlla na ko yàlla xaare àjjana uh-huh. di wax ne euh, tey àdduna euh, bu amee lu xew dañuy am un peu de pour analyser uh-huh. avec lucidité pour mën a xam lan moo xew ak lu ñuy def pour mën ko éviter et surtout mu bañ a indi loo xam ne day indi polémique wala day indi jaxasoo ci réew dëgg la man Bali laa juddoo fa laa màggee suma waajur bu jigéen. foofu la dëkk ba tey moom nee na foofu lay dëkk mu dem feneen. démb euh, lu mu metti metti compliqué woon na man ci bi ma pare damaa dem foofu seeti ko seeti waa Bali foofu. parce que damaa jàpp ne Sénégal am na fu muy toll nit ki même boo ko mënti indil dara it ñëwal taxaw ko rek masawu coono rek mën na fekk lu bari. li tax ma wax loolu li ko li ko laa koy jiyee gis nga wax ju neex. Uh-huh. day lijjanti lu bari. tout euh, gis nga nit bu feebaree ñu hôpital. Mm-hmm. am na parfois ce qu'on euh, euh, psychologique. Mm-hmm. bo calamité yi nga gis yëpp ak catastrophe yu bëri ci wàllu médical la mm-hmm. indi docteur bi. mu mu wax ak doomu aadama bi. jox ko garab de day wax ak moom delloosi ko. moo tax ma ne dafa am solo lool te bu ko kenn xeeb. bu ko xeeb xeeb pourquoi je le dis bu leen weesoo y a ce qu'on appelle des placebo mhm. en médecine placebo mooy lan bu nit feebaree ñu ne la amul garab mhm. bu ko faj mhm. wala merci beaucoup wala mu jàpp ne euh, il faut mu naan garab am na ñoo xam ne euh, li leen faj feebar faj garab faju ko te du garab moo koy faj kooku boo ko joxul médicament du wér psychologique te loolu mooy solution bi loo ko def wax ko du wér dañ koy jox placebo boo ko ubbee dara nekku fi lu pënd la rek mooy meew day doon très souvent mais bu ko jàppee xelam day jàpp ne rek moom naan na garab kooku accompagne ko mu wér donc moo tax d'abord li ñuy njëkk a taxaw fu mu toll nii fi may taxaw mooy l'accompagnement psychologique des personnes parce que euh, yàlla moo nangu ne man su ma ci wax sax heureusement il la là parce que dañuy jàng tey lu bari ci loolu euh, bu ko neexoon mënd bi du am am na lu mu ci namm am na message bi mu bëgg a véhiculer mmh. donc ñu ñëpp bu ñu bëggoon sax te mu am te du am dina am. boo demee ba Amérique yàlla def na na euh, def nañ fa huit ans juróom-ñetti at. amul année bu mu dul jóg te amul ay li ko appelé cyclone day ñëw raser dëkk ba mu jeex takk. lépp. et pourtant ñooñu nañ ne moom alal ci àdduna na lu muy wane tout le temps ci ay misaalam. tout à fait donc lii moo tax te bu ko bëggoon mu am du am te bëggoon mu saafaru que li man li ma ci jàppan ne man. Uh-huh. en tant que euh, jaamu jaam. Euh, damay jàpp ne daf ñuy xool suñu taxawaay rek ci lu bari. parce que tey kenn mun te sotti lépp. mais dafay am solo lool ce qu'on appelle la solidarité muy dox. tey solidarité dafay xaw a fépp. gis nga lépp dama koy apporté ci médecine man. Euh, docteur bu la ne mën na faj lépp amul. dañuy am complément la ñu nekk même suñu benn spécialité man su may ñëw damay indi xalaat. Mm-hmm. ki ñu yaakaar ne moo ci gën a tuuti xam-xam sunu suñu hiérarchie dañ koy diglu mu wax parfois loolu mu wax mooy am mooy dañuy waxtaan suñu biir mooy solidarité bi foofu laa cest à ñu gën a jàppalante suñu biir xam ne euh, tey ñëpp ñoo dëkk ci étage. normalement yàlla noonu la tuddee. ñëpp mënuñoo dawal oto et cetera mooy tànn ñii ñoo dëkk ñi ñoo dëkkul mais ñeneen ñi nga xam dañu nekk ci condition nañu taxaw seetaan mhm. mhm. mooy la solidarité nationale mu gën am Sénégal nag yàlla def na am na ay ñi fi tëdd borom barke mhm. a fiy xew loolu dañ koy sante boo xoolee sous région bi li fiy xew lépp ñun Sénégal dañuy kilifa yi fi nekk mu moom li ma ko gis mu toog fii man dama koy jël moom moo représenté xale fi yëpp moo fi toog euh, bu ñu amee chance bu mel noonu ñooñu dañ leen met ñooñu di déglu ñooñu di leen topp lu mënti xew rek dañu am cër boo nga xam ne dañ koy dégg ce qui fait loolu bu ñu ko delloo si si si dëkk bi mm-hmm. cette modestie là cette humilité ba nga xam ne lépp lu xew ñu jox ko boroom ki ko xam mm-hmm. ki ko moom ñu wax ci bañ a polémique bañ ci wax lu ci bokkul mm-hmm. parce que lu bëri parfois yu demee nii tax moi j'insiste là-dessus euh, am na koo xam ne dafay jàpp ne bu kenn ñëwul rek mooy kenn taxawu ko xalaat mu laaj xaalis c'est pourtant mm-hmm. hier bi ma demee ci banlieue bi j'ai constaté mm-hmm. euh, dëgg la métti na métti mm-hmm. na moom métti na parce que dangay xam ne lu difficile la ñii seen kër yi dara nekkatu fa te amuñu kenn ku leen jox dara euh, pour te donner une illustration pour te dire que ne rek métti na mais euh, te je sais également gis naa volonté étatique bu fi am waaw j'ai entendu le président li mu ci wax loolu loolu xedd na xol da mooy dëkk boo xam ne mooy yi demul noonu yàlla jàppalu ñu ba ñi ñaa ngi góor góorlu nit ñi di ci jàpp parce que ñu baax baax ñaa ngi fi mm-hmm. seen sell dafa mu wax lu doy waar moo tax ma ne bu kenn xeeb dara mm-hmm. di jàppale bu kenn xeeb dara euh, Aïcha euh, bi tey El Hadj mm-hmm. bu leen xeeb dërëm bi ngeen dem joxe ko ça va être extrêmement important parce que ñàkkul ne kook dinañ dindi dama fekk dem seen bu doy waar dama ñëw mu fekk ko ci kër gi euh, ma ndox bi nekk ci kër gi fosse bi am problème ma gis ne ndoxu foos bi ak ndoxu taw bi ñu ngi jaxasoo. danañ ci ñëw léegi ci waxtaan. Mhm. li mu indi ci conséquence kenn xamul nu mu toll. kenn xamul sur le plan médical lu muy indi. Mhm. parce li tax man bi ma gisee dama tiit. yaa su ko appelle les maladies hydriques. ñi mhm. nga xam ne ndox bu baaxul moo koy indi. manque d'eau potable wala man ndox bu baaxul parce que euh, c'est vrai euh, suñu rôle li ñu koy waxee dañuy bëgg fii tey ku fi jógee. koy déglu xam ne am na lu bari lu mu ci jëlee mhm. te loolu dina am incha ñi fi wër moom maay kii fi gën a néew xam-xam te xam naa dina ci am euh, na koo xam ne xamul ne ci force boobu naa am sax am na odeur bi tout ça mhm. mais am na lépp loo gis ci li naan ce qu'on appelle li génne ci nit dafa dugg mhm. euh, am na loo xam ne lu bon a bon la loo xam ne bu du génnee rek bu duggee ci nit du laal tam nit fépp lay laaw te ndox boobu da ko jàlle fu nekk te day multiplier ci ndox bi te mën na faa fanaan mën na faa dëkk te mën yow mi nga xam ne li tax ma ne solidarité yow mi nga yaakaar ne sa kër mën dëb amu fa kële moo fa am mhm. boo ko lijjantuwulee ba ndox boobu génn dugg ci koñ bi mhm. yow tu n'es pas épargné te ce sont yoo xam ne bu la bu la laalee ba am fu muy egg li may gën a joxe exemple mooy amibiase hémorragie intestinale mhm. mun na dem ba toucher foie bi ñëpp xam nañu ci affaire on appelle la lépp loo xam ne setul la li ci gaala mu jaar mooy ndox bi bu la wàlleekee bu koy jëlee mun na dugg si kër donc dañ naan yow daw nga ko yaakaar na jàppale donc foofu nit ki am problème mm. ku mën a dim dimbal dimbali ko parce que quand il me loolu ma ne ko la première chose mooy ndox bi dañ koy génne mm-hmm. am na ñu ko def fu nekk ah, man mm-hmm. exemple bu ma jox rek je suis sûr ko def donc fa laay daaneel fa laay daaneel pourquoi j'insiste là mm-hmm. bi ma ko ne dinaa ko génne suba pour dire que parfois sénégalais wutul lu bëri soxlawul en fait xaar lu bëri nañ ko dinaa jàppale génne ko suba dafa ne professeur est ce que naxuloo ma ne ma kon xaar ma fecc ndeysaan vit dans des yi te di nga xam ne Sénégal aussi am nañu doylu loolu moom mooy li nga xam ne dama koy masaw di wax ne daal solidarité boobu la ñu soxla mhm. à tous les niveaux kenn mënut a def lépp te également bu kenn xeeb dara d'accord mu wax nii sax dafa am solo xam nga lii mooy mhm. euh, euh, sa sa dëkkandoo di di di lakkale mhm. nga toog di ko seetaan ferñeent mën naa jógee ci moom daal ci sab nekk yow it nga tàkkale. donc solidarité boobu lu lu am solo la. voilà ma dama ko fàtte maladie maladie comme lu mel ni siburu dégg nga ñëpp li ñuy tiit mooy siburu bu weesoo ndox mu kii boobu jigéen na mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. a bu fa defee fan ñaari qu'on appelle les gîtes larvaires mooy weñ euh, yooya mhm. foofu dañuy gaaw développé boo xoolee boo jëlee fruit teg ko ci lu mel ni ay raisin la ci gën a yomb a gis mhm. teg ko sa biir kër rek mhm. bu ko muur boo yeewoo di nga gis lu mel ni ay weñ yu ndaw di fi génn pour en si peu de temps bu amee benn liquide bu mu tuuti tuuti rek day dund pilule te ñëpp xam nañ ne yoo moom su mu bëree surtout suñu dëkk yi xam ne am na réservoir yooyu bu ñu tëbee rek je pense que li mu nar a yàq day ñëw tuuti ci professeur Mbaye Saba parce que damay sukkandiku ci li mu wax rek xam nga tey ji euh, askan wi sonn nañu mais lu bëri li leen gën a métti ci mbir mi moom mooy d' abord yaa yaa am ñaari mbir yu ci am bu ci njëkk moom mooy euh, on parle de 750 milliards yoo xam ne kenn xamu nit ñëpp taxaw nañ ne 750 milliards yi fan la aw fan lañ ko dugal bi ci topp moom mooy moom président de la république waxoon na fi ne dans ci quatre ans xam nga programme décennal bi de 2012 à 2022 la woon mais dafa ne ci quatre ans yi réglé nañu lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mbënd mi et ñu gis ne yëf yi taxawaat na mu nekk ñaari mbir yoo xam ne métti na askan wi mais tey ji lan nga ñu ci mun a wax d' abord ci 750 milliards yooyu ak itam loolu nga xam ne promesse la waxoon na ko fu alal ji dugg ak jëf ji ndax teg nga ci sa bët loo xam ne jot nañ ko def waaw bi tey xam nga lii ay phénomène naturel la soo ko xoolee globalement xëy na yàlla dafa def euh, ñu bokk ci taw bokk ci équilibre àddina taw feu de brousse volcan tsunami loo xam ne nii euh, faw danay am euh, su ne nag scientifiquement mën nañ ko gis muy ñëw am na ci yoo xam ne nii kenn mënu koo mënu koo taxa taxa bay mënu ko téye mm-hmm. waaw xam nga tsunami buy ñëw wala volcan buy tàkk moom nit mënu ci dara amul garab bu bu ko mais am na ci lu mel ni feu de brousse mën nga gaaw pour foo bañee mu impacté sa àddina bi mën nga gaaw ak sa matériel nga fay ko mm-hmm. mën nga sax fexe ba soo defee ay point de surveillance su teelee jóg rek nga teel ko fay parce conséquence bi am du local. Mhm. day nekk benn conséquence léeg-léeg au niveau mondial xam nga feu de brousse su amee par exemple tey Russie euh, le presque le plus grand pays producteur de mais mais mburu Sénégal fii day day yokku day cher parce que su su toolu maïs lakkee c'est sûr que su le marché xam nga ñoom demande offre moom sur le plan mondial dañuy xool euh, offreur bu mag ba amatul donc mën na impacter ba Sénégal mais am na ci yoo xam ne nii. Euh, scientifiquement man nga xam ne ren dana taw waxoon nañ ko ñaareel ba xëy na inondation catastrophe la boo xam ne nii nit ki su góor góorloo ci gestion ci gérer ko man yàlla mën na ko ci dimbale ba nga xam ne peut-être les premières minutes dana am noonu rek mais après euh, ndox mi dana am fu muy jaar dem mm-hmm. maintenant dañu suñ suñu euh, dirigeant yi daf ci <coughs> daf ci am ay yoo xam ne nii ba ay effet d'annonce la wala politique politicienne mais Sénégal xëy na sax amutoon doole pour nga boole dëkk yi ma dégg fi ne nii yëpp ñu boole ko ci benn programme d'assainissement sax sooy xool décennal sax gëm naa ne alal ji amuñu ko parce que waroon na mën a dépasser sept cent cinquante milliards yooyu ñu wax noonu. Mm-hmm. mais su bu ñëw def dara ci sa vision ndax affaire bi du rek canalisation. Mm-hmm. dafa am ay dëkkuwaay yoo xam ni kenn waru fa dëkk xam nga wàqi naan soo ko déggee xam ne fii. Euh, olof bu leer la mais tolloon nañ sécheresse jamono boo xam ne nii bon finalement euh, dañu bàyyi nit ñi dagg koo def ko ay kër mhm. yoonu ndox te ku xam ne ndox ndox du du du du wàcc moroomam kon am na foo xam ne nii sunu dirigeants yi dañ ci politique yi dañ ci dañ ci faillir yaa ngi évoqué léegi benn euh, kii bu président Macky Sall 2016 mhm. bon quatre ans parce que tawut xam nga ñetti at yi taw bi dafa ndaw. waaw ça c'est vrai. comme que tawutoon taw bu ndaw bi rek ñu daal di ne defe ne ala c'est fini non mm-hmm. euh, parce que tamit ah, man mënu ma comprendre aussi nga dugal alal ju ma noonu fekkente ne du effet d'annonce kese su dee noonu du effet d'annonce kese te d'année en année doo def ay évaluation mm-hmm. parce que soo jëlee le cas de Cambérène bi mais euh, deux cent mètres xaw de la mer am na lu mu doon demee foofu warul loolu loolu xam nga dafa dafa kii euh, euh, euh, évacuation xam nga moo gënoon a gaaw. Mhm. peut sax di ko jëlee <coughs> fu mel ni fu ruqee comme ay biir sikap nga xam ne xëy na fa koy xëcc mu dem ay Médina te foofu sax normalement tubaab bi defoon nañ fa ay kii de canalisation. Euh, dama fay xaw a d'accord ak yow tuuti. Mhm. c'est vrai que commencé nga si pàcc bu am solo mooy euh, catastrophe ku ci ne xam ne ne catastrophe ngir yàlla mbiru yàlla la. Mhm. Euh, donc dépassé na daanaka nit ci gis-gisam. Mhm. mais ak lu mën a am nañu xam ne que état également dafa war di diagnostiquer di xool li nga xam ne moom moo ñëwagul. pour mën ko di ko gàttandu. et ñëpp xam ne ne aussi taw bi quoi qu'on puisse dire rek alerte alerte nañu parce que c'est pas seulement au Sénégal mais mois avant ñu ngi doon alerté ci taw bi nga xamante ne mu ngi ñëw d'ailleurs euh, chéri li koy prouver moom mooy que euh, bi ñu ne taw bi samedi la mercredi en conseil des ministres le président de la république euh, woon na programme décennal bi nekk nañ foog ñu auditer ko ci nu mu gën a gaawee pourquoi mu mu mu mu mu mu xaar ba jëm yàlla boobu ci bëccëg boobu noonu nekk nañ ko auditer est-ce que amuloon lu mu doon njort mais man damay tourner un tout petit peu si Euh, ci euh, El Hadji euh, Ahmed Khalifa Niass ma laaj ko peut-être am na ci ay institution yoo xamante ne ni dañ leen di jox koppar gu takku 750 milliards du lu ndaw ci réew bu mel ni Sénégal bien vrai que Sénégal émergent la ñu wax mais ak lu ci mën a am mooy ne que koppar gu takku la goo xamante ne nii biñ la ko biñ ko tegee ci loxo ñi ko yor ak léegi yàgg na est-ce que gisoo ne yenn institutions yi su fekkente ne laaj nañ leen lu ñu sant te defuñu ko ñu jëm leen fee déjati mieux vaut muy toog di yàq xaalis ba kañ. waaw soxna <coughs> bi. Hmm. kenn rek moo ko waral mooy Senghor. parti ah, hmm? hmm. moo ko waral bala maa dem foofu. pour nga comprendre lii di xew Sénégal da ngaa war a xam gis nga laaj caat bala ngay gis. géej gii fa la nekkoon océan Atlantique dafa jógee lak dafa jóg di retiré wu bàyyi fa lak caat muy ndesit muy replier dellu si loolu tax amoon na sax ñu fitu doon ay projet def naa président Wade loon pour def port Kaffrine xam nga boo nee ni port Kaffrine bato yi dem ñëw dafay ree te pourtant loolu mën naa nekk fii mboolem mi liggéey ci suuf si muy ci batiment mu ci agronomie muy leneen dañ la wax ne la la roche mère est roche salée loolu xam-xam bu sori la ndax dem na ay douze mille am na ñu wax ne retrait boobu am na ñu wax na ci li waral benn continent bu tudd Atlantide retrait géej googu moo ko moo ko toxal mhm. léegi xam-xamu intermédiaire bi mooy suufu ndakaaru suufu géej lawoon na naka jekk ci cosaanam ngamar ngàbb yi ngay gis lak mhm. lak yi ngay gis ci loolu la jóge bi nga xamee ne tubaab yi yor nañu réew mi di ko doxal nanguñu woon di diisal suufu ndakaaru tax ñu jël capital bi defoon ko ndar foofu ngay xamee li wax ci Senghor bi ñu jëlee dafa amoon choix entre ñaari yëf Sénégal bi fi nekkoon ay dëkk yu ndaw ak yu yemal yu yemamaay amoon na lu mën ñeenti téeméeri dëkk yoo xam ne ay escale lañ leen di tuddee comme ay mbos ay euh, daaru yu bëri escale mooy foo xam ne dañ fa daan jal gerte gi ay angaar di ko jënd fu ci ne am commerce boo xam ne commerçant yi ñëw di jënd si gerte gi am fa seen i magasin yoo xam ne dañuy indi li population yi soxla population yi du premier janvier au 31 décembre luñ soxla ñooñu dañ leen ko jox te duñ leen fayeeku ba gerte gi ñëw ci la ñuy defee yi par contre Dakar nekk capital AOF maanaam li ko dalee Niger Bénin nekkoon Dahomey Togo Côte d'Ivoire euh, Haute-Volta mooy léegi Burkina Mali moo nekkoon Soudan Guinée Mauritanie ak Sénégal fii nekkoon seen capital biñ dindee liñ doon wax fédération de l'AOF dëkk bi war a gent ndax ñëpp dañ doon dem fi ne ni booy dem dañ la taax yi fii la kii nekkoon représentant Niger représentant nangam nangam nangam Senghor nag amoon na ci moom li tubaab yi di wax entre guillemets folie de grandeur am na sax ñuy wax les complexes du nain nit ñu gàtt toujours dañuy bëgg du leen euh, même jigéen ñi gàtt sax dañuy sol coquette <laughs> waaw donc nga pour nga comprendre profondeur bi mu waroon a def benn choix crucial mooy mu bàyyi Sénégal noonu mu meloon Ndakaaru di dëkk bu ndaw Ndar di capital mhm. walla mu rey dëkk yi lii ma lay wax am na sama livre boo xam ne mi ngi génn na fan yi kiyeeguñ ko euh, xëy na fekk octobre lañ koy génne mais pare na jógee na ci imprimerie bi mhm. boo xam ne maa ngi ko ciy wax mhm. léegi mu am benn choix entre une capitale euh, voilà qui brille mhm. à la à l'européenne à la française wala un pays équilibré mais boo xam ne économie bi ci boppam dafa équilibré parce que Euh, escale yooyu yëpp elle se valait mm-hmm. mën nga jënd machine à coudre mën nga jënd lal mën nga jënd lampe mën nga jënd ceeb mën nga jënd leneen donc mu choisir li nga xam ne mooy le mauvais choix mooy ne biir Sénégal de loolu mooy indi après l' exode rural mm-hmm. exode rural bi mooy indi ko am dara tabax ko amul dara de jàll géej barsax mbaa barsa loolu yëpp ci benn affaire boobu la jóge mm-hmm. mooy le big bang sénégalais ñuy tabax di teg léegi nag li ëpp Sénégal yi quatre-vingt-dix pour cent comprendre mënuñoo comprendre euh, taax mu toll nii këyit su toll nii di ko moomale ak di ko ko faj xamuñu luy këyit professeurs yi ñoom bu ñuy jënd këyit dañuy jëkk a laaj mooy ana këyiti kër gi fii nag këyit boobu même bu ñu lay indilee benn këyit boo xam ne c'est sous privé dañuy ne jox na ma këyit am nañ këyit mais normalement quatre pour cent territoire fii Cap Vert lañ ko daan parce que foo toll vert verdure nga mhm. daan gis Cap Vert mhm. ci olof dañ lay wax ñaay bi mhm. xam nga baat bu yàq la ñay fi ñay yi di nekk ñay ñooy ñaa ñooy ñaay dëkk yu bëri ñu ngi tudd puut wala póotu mooy fi jigéen ñi daan fóotee gars yi euh, ñay ñi di leen ko fekk. donc fii zone non éligible candidat à quatre vingt pour cent. mais bi Senghor ne na maanaam na dëkk yu ndaw yi dee Ndakaaru rëy exode rural bi am bu dem yoonam mu am douze ans de sécheresse. waaw am na ñoo xam ne tey fañ ne ci diggu ndox ma buñ la ko jaayee buñ la ko mayee doo ko jël. Mhm. ci boobu jamono toog nañu douze ans yoo xam ne topp ndox du wàcc. Mhm. mooy loolu Youssou Ndour doon way naan xaw maral bi métti naa xaw mm-hmm. voilà ci boobu jamono nag lañ jaay suuf yooyu nga xam ne ay xe ay ay géej la ay dékk ay xur mm-hmm. loolu mooy d'abord l'origine mais pour ma wax ne fii je fii tout état tout gouvernement fépp mën a doon mm-hmm. mu war ñu ne bu ñu ne lii lañ fi def ci mbënn bi sept cent cinquante milliards loola du mat dix mënuñ ko. xel nangu ko au défi defuñ fi 10 ouvrage amul benn ouvrage bu jar 10 milliards. café bii nga ma jox léegi. mën naa ko jëlal somb ci mbedd bi du passé 100 francs. bu ma toogoon café bu ñëw Phuket ca Paris. jël ko dama fay 15000 francs. <laughs> c'est vrai. café gi suukar si benn la. kopp bi benn la. xëy na ñu loolu hmm. c'est-à-dire fii ni ñuy jëndee état bi amul droit bay wale mu ñëw ne kéel ma nangam jox ko ko ñetti junni déedéet hmm. état bi dafay laaj pour benn béy béy woowu ñu facturer ko un million cinq cent mille fekk quinze mille francs lay jar. Hmm. mais loolu lan lan lañ ci jublu. man mii di wax ak yow. bi ma nekkee ministre. ñu jox ma suma bureau COTECNA. ci jot ci gannaaw euh, dig fi mu nekk. bi ma ñëwee ñu indil ma euh, euh, table de bureau bi ñu ma indil dama ne lu ma ci toog te waruñu ma facture bi ko jënd ma gis nag facture bi sept million cinq cent mille la taabal waaw ma ne man du ma ci toog du ma toog ci taabalu sept million cinq cent mille parce que taabal taabal rek la ma dem di dem fañ ko jëndee di xool ba gis taabal bureau bu baax ma wax ma wax ñaata la ñu ne cinq cent mille ma jël boobu delloo bëri bi bi ma toogee it ñu ne ministre gi jeex na may dem sama secrétaire bi ma ne yow gars yi ñu ngi téléphoné ne mënaguñoo jël bureau bi parce que jëlaguloo meuble bureau ba fa nekk ma ne ko ma meuble bureau bureau ko mu ne ma déedéet fii ñu ne ministre yi tox yëpp dañuy jël bureau bañ bare ko ba mu set ah, ma ma loolu xaw ma ko donc loolu ci ngay déggee lële lii ci mbënd mi sept cent cinquante milliards yi mooy bureau ba bi bi bi war a jar cinq cent mil ou trois cent mille ñu jëkk ci sept millions cinq cent mille ak lu demee noonu. mais kon man su ma ko su ma waaw waaw vas-y vas wax nii mhm. dinaa ko xaw a comprendre benn côté te dëggal ko itamit mhm. mais xam nga loo gis itamit dafa war a am suivi su fekkente ne teg nañu ab programme c'est sûr que dinañ ko audité mais on a l'impression ko tey plan yooyu ñu tëral yépp bien vrai que ci kaw au sommet xam nañ ne koppar gi ñuy annoncé du loolu mooy dugg ci li nga xam ne moom moo di xeex bi mais à chaque fois même bu ñu ko auditer rapport bi ci conc li lay mujj ma ne waaw loolu nga auditer mooy oo sàcc pour mu yuuxu sàcc <laughs> sàcc bi sàcc la ki ko yuuxu sàcc la te dama lay wax mboolem nag amul benn structure de vérification même en interne boo xam ne duut mooy structure bii tax ñuy sàcc man mën naa la jox benn exemple su soo xam ne maa ko moom ñu jox ma ko bàyyi benn mille mètre carré la fii ci biir Dakar mhm. jamonoy wàdd la mhm. keroog bi bi fi jógee ma ñëw di ko toppatoo impôt et domaine dañ ma ne suuf yooyu euh, après dañ ko def yeneen affectation ba fi ñu euh, ngi ci loxo inspection des impôts mais ministre ba nekkoon seen ministre ci jamono dama koy yónnee sms ñaari baat mm-hmm. mu ne gars yi jox leen ko yëfam <laughs> <laughs> te ñooñu ñooy inspecteurs yi inspecté nga xam ne lu ñu naan ne ay de bureau. affaire bi fi mu ne dafa xóotu. xóotu mais mais kon mais kon mais kon mais toll nii ce que ñun maanaam. askan bi fi mu toll nii 750 euh, milliards nekkul kaweer. mais kon lan moo tax ñu koy wax. 100 bu bokk borom. loo ko puus puus loo ko gonfle gonfle du ko paase. ay ouvrage rek la amul leneen milliard ay ouvrage rek la amul leneen. Mhm. ouvrage yi fi jar loolu wax dëgg yàlla. mais kon ñun est ce que ñun yaakaar nañ ne dinañ mës a génn dinañ mës a génn ci ñu nekk dama lay wax nii. waaw te du exagération. Uh-huh. avec sept cent cinquante milliards. mën naa la defal Cap-Vert yëpp muy mar nii. Mhm. Cap-Vert yëpp muy marbre laa wax. Mhm. xam nañu ñaata la ça représente zéro. virgule 3 pour cent de la superficie du Sénégal. tout à fait bi nga xam ne cent quatre vingt et quelques mille euh, euh, mille mètres kilomètres carrés. donc xam nañu la superficie boo ko multiplier par le coût au mètre carré même buy 3 kon ñoom ñu ngi dund ci kaw askan wi c'est-à-dire loolu lay a niru ñu ngi dund ci kaw askan wi. loolu yéen ñi nga xam ne yéen a yor waxukaay yi ak wanekaay yi. Mhm. ñu ci bëree bëri jànguñu duñ ko wax. ji nga fii chaque année. depuis nag depuis tout depuis bi fi tubaab jóge jógee bi ñu fi jógee dañ fi bàyyi alal ju ëpp surplus alal boo xam ne année bu ne bu ñu war a dépenser mille sept cent moo dem wala six cent wala huit cent ñu di ko dajale bi ñuy dem joxe ko ne lii xaalis la boo xam ne résidu budgétaire la mhm. ñu jël ko tuddee ko compte cadre di ko jox politiciens yi ba mu jeex te loola mënoon na tabax Sénégal ba mu mel ni Hong Kong donc feebar la boo xam ne bu ko waxul on passe à côté moo tax man fekkee dañuy wax pour passer à côté man bokkuma. moo tax question de priorité moo tax question de de de priorité dafay dafay revenir un tout petit peu euh, man dafa quand ma parlant de de priorité est-ce que ñun suñu gouvernants yi professeur Meissa Babou xam nañu priorité euh, barke Dembo Ndiaye Sénégal waaw. nga loolu dem na ba Covid bi dinañ ci wax. ci dinañ ci wax dinañ ci ñëw mais dama dem na ba mhm. Covid bii. da mhm. koy war a faj. jidye bi laalul foofu ay bandaas ak ay micro koro ay te suñuy mille te milliards jamono ji mu ngi ci ŋaay man waaw ngi wax ci mën beeg plan ORSEC 750 milliards et tout ce qui avec uh-huh. donc on est là sam papa mi ngi nii toog mi ngi ne yéen yéen a yor waxukaay yoo xoo leen si et euh, amoo leen benn kàddu boo xam ne war ngeen ko si mën a sànni parce que là yéen ñu ngi leen di indexé. i non si dañ leen a indexé du tout parce que ni yéen yoo waxi waxoo leen ko. Ah, et vous l'avez bien entendu vous n'avez pas répliqué. pourquoi il faut aussi dire que ne ñun. dañoo am nga on n'a pas droit à la parole. xaaral bi tey xaaral rek. waaw ñëwal ñëwal ñëwal waaw ñëwal on n'a pas droit à la parole. waaw. bu ñu waxee liberté d'expression yaa ma gën a comprendre xam nga ni muy demee. Mhm. tu parles on te prend on te met au trou. Mhm. alors comment oses-tu parler. Euh, comment mhm. nuy tu parles on te met au trou. alors comment parler cette liberté d'expression là. comment parler. d'accord comment. d'accord Ahmed Khalifa dafa Euh, yéen journalistes yi. yéen ñi nga xam ne yéen a yor waxukaay yi. yéen a war a wax te waxu leen dafa mel ni jàngu leen ngir mun a wax loolu moom loolu lay répliquer nee na lu tax ñun ñu bàyyi loolu te tontu ñu ko parce que wax ji mooy. sama journal pare na jot na la mu waroon a jot. ok yow nag yaa mën a continuer. Mm-hmm. je veux dire par là. Mm-hmm. que daf fii da ngay gis koo xam ne. kii euh, courrier rek la yóbbukatu këyit lettre di liggéey fii ci misaal ci Walfadjri mm-hmm. ñëw ne la grand defareel ma carte de presse. ok am carte de presse te moom livreur rek la. Mm. pour livreur mën a amee carte de presse. mën na mën na mën na euh, am peut-être mën na am peut ci ci ci ci ci yeneen structure. dama lay wax ci kër gi. soxna si am fi am fi am fi am fi carte de presse moo raw bàngoo. waaw d'accord <laughs> waaw loolu de wóor na am fi carte de presse moo raw bàngoo. Euh, fii maa la ko gën a xam. mais am fi carte de presse moo raw bàngoo. dama ne fi gën a xam. ci <laughs> ñun li eh, ñu dund xam nga bëgguma indi ay mémoire ñu dégg yooyu. waaw mais fi amuñu falsifié ay ay kii ay xaw ma. ah waaw waaw waaw d'accord ay signature. waaw d'accord waaw waaw déglu rek. waaw d'accord waaw la mais parlant de carte de presse. <laughs> c'est pas facile am ko fii wala waaw non mais loolu amatul ci jamono non non parce que beneen kaa nga di voilà kaa yi du benn. voilà ñun bu ñu fekkee noonu moo fi moo fi moo fi moo fi am <laughs> léegi may ma man ma ñëw ci sama priorité bi. Ah. laataa ah, ñëw professeur mi ngi laaj carte dafa mel dafa am ci lu mu bëgg a man fi ma moom moom mu ñëw vraiment professeur man daf ma itteel hmm. euh, ki nga xam ne moom moo di njiitu réew mi Macky Sall jamono ci nga xam ne ni Sénégal mu ngi ci galère gu métti métti hmm. Euh, ku ci ne di xëccu kiir ngir sa bopp sunu entreprise yi mhm. euh, privé comme comme comme public bu ci nekk mu ngi mu ngi sooxe am na ñoo xam ne sax profité wu nañu ci euh, Covid bi ngir daal di éliminer quelques employés parce que tout simplement dem nañ ba xam ne que la loxo daan def wala nit di ko def machine mën na ko def à travers li nga xam ne moom moo di télétravail bi donc gis mhm. nañ ko fi bien vrai que le président avait dit que bu ñu dàq kenn ci période Covid bi mhm. li ñu gis dafa dem ba diwaanu France di fekkee sommet wala forum boo xamante ne nii euh, c'est pour la relance des entreprises françaises mm-hmm. nga gis ne loolu mm-hmm. yow naka nga ko jàngatee en tant que économiste ci jamono joo xamante nii koom di fii ci réewu Sénégal mu ngi sooxe waaw dama bëggoon njëkk confirmer li sang bu baax bi wax mm-hmm. gis nga euh, exemple laa lay jox Touba voilà bu ma xam musu ñoo gis musoo gis ñuy tabax jumaa mu tardé day pare ay jumaay vingt milliards laa la wax de xamal jumaa cinq cent millions bu bërki dem lañu inauguré benn bu bees bu ma bu kër maam jaara université bi léegi nga dégg ñu ne ubbi nañ ko sëñ bi la koy ubbi xamul mm. parce que l'argent n'est pas détourné ñañ fa teg benn dërëm bu ci war a dem danañ ko ci dem fekkoonte ne demoon na bay am ay luubal sax dana ma jaaxal mm-hmm. un milliard cinq cent millions moins de deux milliards fi ne nii moom lañ yor ci assainissement Touba ca kanam deux milliards ci ko xam ne Touba toll. daanaka soo booloon Pikine ak Guédiawaye deux milliards kon sept cent cinquante milliards yi ñu wax man j'ai toujours di effet d'annonce. ok effet d'annonce mais l'argent n'a jamais été décaissé amu fi sax kon mën dem kooku affaire politicien la rek mhm. mais léegi xam nga ñoom it suñuy gérer. dañuy gérer lu lu lu bët souvent lu bët mën a gis moo leen di gënal. ñu dem jël 750 milliards di ko gas inondation lu am mais kenn du ko gis. Mhm. su boobaa pour ñoom liggéeyuñu. il préfère ñu defal pont bu rëy. Mhm. du la amal benn njëriñ. nga ñëpp di ko gis ne pont bi rëy na moo leen gënal defal la inondation boo xoola je prends l' exemple Ila Touba. Mhm. mais Ila Touba il fallait seulement ñu élargir euh, euh, tali bi jëm Touba route nationale bi. Mhm. diggante Thiès ba ba ngay dugg Touba. tu à cent à l'heure benn saret nga duble ko benn camion nga doublé ko est-ce que jaroon na jaroon na mettre 400 milliards. 400 milliards boo xam ne soo xool le coût d'opportunité. Mhm. c'est pour revenir venir revenir à sa question bi mu wax euh, ordre prioritaire. 400 milliards yooyu non seulement assainissement Touba bee tey mënoon na ko def mais hôpital de 20 milliards bañ fa commencé woon. hôpital ba. xam nga xam nga nee naa la hôpitalu Touba wala jumaay Touba du du taxaw. hôpital ba 20 milliards def naa 5 milliards lañ ci avance xaw ma 3 milliards. Mhm. pare na amul. hôpital bi dootu amati lekk nañ xaa lekk lañ fa dugaloon. tu te rends donc xam nga tamit gouvernance mhm. euh, boo gis caractère la lay laaj am na loo xam ne euh, soo demee. service su professeur Ndiaye mii am na loo xam ne am na ku ko ñëmuut a def parce que xam ne soo ko soo defee balaa balaa ngoon a jot am lu la ca fekk donc ñun ñoo am problème de gouvernance euh, copinage te euh, lii sëñ bi doon wax léegi soo leen projet cent franc ngi nii ak projet mille franc mhm. mais bu mille franc bi la ñuy jël mhm. loolu nag kon dafa mel ni ah ñoom xanaa Mm-hmm. la gën a seer gën a rëy. Mm-hmm. xanaa dafa am lu ñu cay wut. ak kay dëgg. dëgg li nga wax bu baax a pour mottali ko. man bind naa article. Mm-hmm. ne leen lii lañ jënd bi di jar ca Paris. lii la terre la ñu jaayee terre bi. buñ buñ ko jëndee lañ ko jëndee Paris. terre bi yem euh, xaw ma jam ñaajo la xaw ma. ma nga ma c'est c'est sûr. parce que. jaay nañu vraiment vagon bu ne. liñ jaayee dix dix wa euh, mhm. buñ ko jaayee Alstom jaay nañu ñun njëgu benn wagon. Mhm. affaire bi naxokrasi. Ah, ah, du démo question osée du question démocratie en réalité naxokrasi la. Mhm. ci nga président Macky mi ñëpp xam nañ sama xaritoo ak moom. Mhm. ñaari ministre la am. mooy kan ak kan. ministre tiitalaate ak ministre cax-caxaan. léegi kan moo ci ministre tiitalaate bi. peu importe ban la rolam mooy mu tiital la. déet ah. léegi bu ñu bëggee par exemple président bi. Ah, ah, sëñ ko diw. may oh, il est dangereux. Mm. il est dangereux. ah bon ñu ne parce que tu es notre chef. ah bon d'accord alors qu'est-ce qu'il faut faire. ko ca léegi ministre tiitalaat naru ko woon de xamul nu mu demee. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñi koy tiital. bu bëggee mu def dara dañ koy tiital. ah ok am na ñoo xam ne dañuy xëy ne ko. président. y man maa la indil man sa ministre la indil indi bii wane ni mi daanaka yegg na ci Paris. ok wala sax paase na. professeur ne ko capturé nañ. d'accord mm-hmm. le nombre de croissants consommés au petit déjeuner. Mm-hmm. par rapport au nombre d'habitants de de mm-hmm. celui de Paris. kon nag loolu c'est la preuve que yow yegg nga yóbbu nga Sénégal ba léegi. Dakar maanaam ñu koy jay lan mooy baromètre bi mooy croissant bi. d' accord fromage ah, wala. xam nga El Hadj boo ma contrôlé ah, sama croissant naka la ñuy formé. Uh-huh. Euh, naka la ñuy formaté. raisonnement wu dirigeant yi. Mm-hmm. moo tax lu baree bare dinañ leen tooñ dina ci am. ok léegi xam nga lu ma bëgg dama leen bëgg a bett wan leen benn image. ci sama télé bu ma leen wanee image bi. Mm-hmm. ñoom ñu xool laata ngay jàll ci. xuus ci Covid bi. ak professeur Daouda Ndiaye. léegi xool leen image bi ma leen di wan. ci 1776 ci jamono ji Amérique di xalaata def révolution fekk na Sénégal def na révolution 1776. te bokk na ci révolution ba mooy ne du dem vers dérive monarchique ni dérive dynastique. loola ñu doon bañ ñooñ ca Fuuta ñun ñu ngi door a toll ci di ko bañ ak di ko ñàkk bañ fii ci senegal xool leen ku fi falu rekk faluwaaleeg say mbokk te loolu la Fuuta bañoon ba nga xam ne soo xasee ba falu say mbokk nañ defi leneen waaye buñ defati politique buñ fa jegeeti loolu la ñu bindoon ko ci article un kon pir googu nga xam ne fa la nasee loola loola nekk na du dund ba 1881 mooy l'état des Almaami piir boobu nga xam ne tubaab bi bi mu ñëwee dafa jàpp ne fii mooy cerveau bi dañ ko war a toj mu ñëw jël téere yi mu ñëw wut si leen ñu bañ mu wut si téere yi ñi gasal ko suul lañ fa ne lañ fa tefoon pour xàmmekaay ñi ciy ñëw di ci barkalu ba boo ñëwee mu mujj nekk lu liis moo gën a liis lii nga xam ne vernis ci jaar xam ne soo nee liir lire les symboles mun a liir ci sa kanam nga xam ne am na luy annoncé wu lu yegg seegul eh, mooy élément bi ma leen jox bett jox leen ko mm-hmm. muy ay kàddu yoo xam ne wax dëgg yàlla tey jii ki nga xam ne moom la ñu eh, moom la ñu lii di émission bi muy Kër Sidi muy ay kàddu yu mu yëkkati woon dégg ngeen li wax du ma du ma commenté yéen laay bàyyi parce que dégg ngeen li wax wax na ba mi ngi war ne eh, mi ngi wax ne boo gisee loolu war ngaa mun a xam ne am na luy annoncé donc ça veut dire que da doon wax wax joo xam ne dangay xam ne kii askan wi la fi lay waxal kii ay léebu lay def ngir nit ñi nga xam ne ñoo ñu jiite mun a bàyyi seen xel euh, laataa loolu di yegg si euh, tey nan nga ko mën a jàngatee kàddu yi nga xam ne moom nga dégg. waaw maanaam wax ji moom daal benn la. Mm-hmm. mos naa ci waxtaan ci lu demee nii ak roi Assane. Mm-hmm. ndax nekkoon naa conseiller spécial am pendant sept donc dañ doon wax boobu mu ne yéen bi tubaab yi di dugg si au dix-huitième siècle ci lañ doon dugg si aussi fii ci ñun Maroc mais bañ jógee bu ko dof yu jóg kii naan lii nañ leen dóor nañ leen rey ñoo leen mën kaafir lañ mën a ñu reporter kii bi ba ba ca ëllëg sa mu ne après soo maam gars yi ñëw ni ko léegi dof yi bu kenn bu fi def def teew nañ seet rek borom xel yeeg njàng yeeg xalaat yi mu ne bañ dajee ñu ne ne ñun mu kii mëqadoo yi ñu yore ak yéen yeeg jaas yi ñi ay canon lañ yore buñ xeexee ak ñoom Maroc Maroc biñ bëgg dootul am léegi li fi ne yéen na ngeen waxtaan ak ñoom yéen shérif yi ñu seet minimum bi nga xam ne buñ leen ko bàyyee am jàmm mën a continuer di def lu ñuy def ndax ñoom dañuy dem lu yàgg-yàgg ak maximum mi bi nga xam ne ñun moom lañ mën a joxe boobu buñ ko joxewul ñu jaay suñu bakkan bañ tëjee loolu mu ne ñu dem wax ak ñoom ñu ne ñun lii ak lii rek lañ soxla li ci des ñu bàyyi leen ko mu ne looloo tax ñu doon nguur yi yéen nag dof yi ba ñu waxee léegi ñu noppi loo moo tax ngeen ngeen ñàkkee nguur gi ci dix-huitième siècle ba léegi ñu ngi leen di toroxal mhm. te mooy taalibi yelwaan alxuraan égal yelwaan mhm. loolu mooy li si di sama rakk daan wax doon jàng jërëjëf professeur Daouda waaw ci jàpp jàngate c'est vraiment c'était important émission bu mel nii nga jàllale message am ci kàddoom euh, liñ ñu ciy jàngate mooy euh, yaa a rien de surprenant ci moom ci message am ci discours am moom moom pour man moom dañ ko yónni woon. pour mu ñëwal fi nekkal ko askan wi. toute sa vie durant c' est pourquoi euh, c' est important parce que tey dëdd na fi am na ñu fi nekk. damañ ko jaay. waaw jërëjëf. te di déglu askan wi di xool parce que euh, ñu ne buur aayul dog yaa aay. donc ku mel ni moom parce que ku mel ni di euh, je pense que bu ko Sénégal doon déglu. lu bëri mun nañ ko lijjanti parce que booy xool ni nga lan moo tax mu wax macha allah xam nga ne liggéey bi moo ko liggéey tey lii tey. Mm-hmm. kooku daawul woon wax pour pour bakkanam doon wax pour askanam. Mm-hmm. c' est difficile nag on est dans un pays où parfois c' est difficile moo tax bi mu waxee li mu wax nii euh, lu mel noonu information yi dañ ci war a dañ ko war a capitaliser et xool loo ko exécuter ba lim ci lim ci wax ñu xool nu ñu koy nu ñu koy defee ba nga xam ne solution dana am pourquoi je le dis euh, enseignement la enseignement la bu doy waar parce que euh, c'est vrai que foofu casquette scientifique mooy wax gis nga euh, te nit ñi boo nee science ñu yaakaar ne science docteur rek la non le monde est scientifique li lii sunu soxna euh, jigéen bi def li sax science la te bu ñu jiitalee science lépp dina sotti parce que leen di lii dañu dem ba xuus ci affaire bu mbënd bi par rapport à l'argent qui a été décaissé apparemment euh, moom il peut en dire autant Mhm. professeur Maysa mun na di autant mhm. science rek na lu bari à l'avant mhm. képp kuy jox ci démarche scientifique encore une fois c'est pas le fait d'être un professeur noonu démarche scientifique ku nekk mën na ko doxalee lu bëri dina la dina la mooy te mooy lan en science yaa ce qu'on appelle lépp loo gis ne dañ koy def dañ koy waxtaanee ñu bind ko ci téere ñu tënk ko ñu xool ñan ñoo koy valider xool est-ce que mën na jàll ou pas xool est que fi ñu ne fa lañ koy dugal am na mën war a nekk man néew ma parce que du ma wax lu ma xamul. en science man damay très prudent lu ma gisul xaw ma ko duma ci wax. Mhm. on peut avoir rek mais damay bàyyi ñi ko war a def ñu def ko. gis nga bu fekkente ne lépp lu ñuy def ci àdduna euh, mën nañ ko def yaa ce qu'on appelle ba ba ba mise en œuvre bi ñu def ce qu'on appelle un plan de suivi évaluation mooy lépp lu génn rek am na lu dafay am sax rek euh, lan lan lañ koy doyee. ñu ne pour jënd lii la pour def lii la ñu ne dañ ko décaissé balaa la leen di génn ñu xoolaat. non seulement est-ce que am na mais est-ce que am na efficacité est-ce que am na njëriñ est-ce que am na impact ñuy dem di dem di dem ba nga xam ne en la réalité muy lu mun mënti doon nag buy sotti yow sax jarul nga naan baax na ni ñaa naan baax na et autre élément extrêmement important y a ce qu'on appelle un programme de contrôle qualité assurance qualité mooy est-ce que li ñuy def am na qualité mm-hmm. est-ce qu'on a assuré ak garantie qualité bi xam nga jus bi tey euh, say su ma ko ne dama koy defar dafa naan du yomb mm-hmm. parce que fu ñu koy war a jaarale mais am nañ ko mën a contrôler mm-hmm. boo jëleen koo xam ne tey xam na jus wala man mii sax dinaa xam ne jus bi kat am na lu bu amoon odeur bu euh, goût bu nekk ci ginnaaw parce que yàgg naa naan jus bi yaa ngi l'expérience di naan ko su amee leneen ak odeur bi dinaan ak couleur bi dinaan yaa am problème mm-hmm. loolu gis nga bu ñu koy doxal ci ci ci ci lu mu mënti doon ci àdduna y mm-hmm. compris mu mënti doon lu bëri dinañ ko éviter donc c'est pourquoi son discours en tout cas li ma ci jàngate mooy encore li ma wax mooy dafa laaj dégg-dégg te discours boo ngay am un peu de détachement bul xool ne li muy wax neex na ma wala neexuma est-ce que li muy wax am na wala amul d'abord bu amee nga ne lan lañ ciy jëlee liñ ciy jëlee lan moo ciy njariñ te et encore une fois loolu dañ ci war a jàngate fi may wax mooy loolu moom li mu wax lépp da ngay sentir ne il veut amul lu muy wut c'est-à-dire que il dit pas parce que <laughs> yàlla macha allah. donc quand il parle il parle pour le mm. peuple. et pour mm. la population donc ñu koy xamee noonu. d'accord professeur sooy xool il a lâché le mot am na benn baat mm-hmm. mu ne dynastie mm-hmm. waaw soo neexee nga ne gouvernance familiale mm-hmm. clanique te loolu xam nga ña ko bañoon ay mille sept cent am na lu ñu lu ñu lu ñu bëggoon ne suñu xamoon na suñ ko defee rek jàmm am maanaam du am conflits sociaux yi nga xam ne tey mën nañ ko tuddee guerre civile parce que je crois que la Guinée est extrêmement fragile actuellement nii Guinée tellement y a ces y le début de ces problèmes wala book yàgg na fa mais c'est en gestation kon je crois que le président Macky Sall en bon euh, alpulaar normalement ces leçons euh, des grands érudits euh, toucouleur là moom war na ko mën a assimiler xam ne effectivement lañ ji ñoon wàdd vrai ou faux tasoon na réew mi mais moom it liñ koy du sax jiiñ mais li mu def parce que bëte ci tege la suñu gestion familiale Et donc yooyu effectivement day nekk ay ay ay ay ay avant-garde yoo xam ne nii normalement un leader tu dois t'imprégner ci yenn philosophie yi philosophie boo xam ne nii da ngay tënku ci euh, soo fekkente ne mënuloo tënku ci diine ak li diine wax euh, professeur Ndiaye mi ngi ko doon dëggal léegi ci ci ci sang bi parce que jub ak jubal mais y' a minimum dafa am un minimum de de de ak xay xay na wala yelleef boo xam ne nii. Mhm. ñi la jiital jox la alalit askan. mais mais mais dañ ko am. Mhm. mais bu fekkente ne euh, Aïcha doon na ko wax léegi. tu es dans ko qu'on appelle benn désordre prioritaire. Mhm. ana usine bu Fann France. ñu bëgg ko dépanner ñëw ne la yow Sénégal commandeel terre xaw ma ndax dëgg la am mais ñu ngi koy wax. su dee ne loolu la. ñu ngi yàq sunu xaalis ci lu yàlla gërëmul askan wi gërëmu ko mhm. kon man jàpp naa ne jafewul de ndax am na foo xam ne soo ko fa tegee voyez mois mhm. wala lu jar junni nga ne nga ne da dama koy euh, jëndee cent mille mhm. mais am na benn chapiteau boo xam ne dañ ko toj da ngay nommé benn ministre de l'enseignement supérieur mu ñëw ci benn école fekk ñu commencé tabax nañ bay waa a raas mën a toj leen ko d'accord wutuwaat beneen marché en fait doo comprendre te suivi évaluation. wax dëgg yàlla war na mën a am. suivi évaluation moo tax par simple observation jëru sax euh, analyse approfondie bi euh, scientifique par simple observation ndox maa ngi nii. ana canal bi. Mm. mbënd maa ngi nii. Mm. loolu kay saa waay jarul jarul di wax ne def na yow defuñu. <laughs> d' accord professeur. defuñu d' accord mais fi mu nii il faut ñu ñëw ci Covid bi. waaw ah, c'est parce que, parce que bu ñu rëccee. waaw du baax te waxuñu ci kay Covid bi. professeur euh, euh, <laughs> pour euh, wax un peu ci ci ci vidéo bi nga xam ne jàll nañ ko léegi léegi El Hadji Sidi Lamine Niass mën naa ne qu'il toujours été constant. Mm -hmm. mais contemporain lam fi waxoon barki démb wax ko fi dém moom mooy boo ko jàppee tey dafay mel ni. ku nekk di dund ak actuellement parce que li muy wax dafa mel ni dañu koy dund nii nii nii jamono jii mais lenn li ñuy dund jamono jii te ñu koy làmb di daj saa su nekk te fi mu toll nii nag wax dëgg yàlla nag moo tax ñuy wax nag mm-hmm. l'actualité phare c'est la Covid 19. ku ci ne xam ne ne coronavirus mu ngi ci réew mi mu ngi defi ñoom be on servir nañu ay slogan apprendre à vivre en présence du virus on l'accepte nekkoon nañ fi état d'urgence dund nañu ko couvre-feu Sénégal yi yaakaaroon ne mënatuñoo tëju à partir de vingt heures def nañu ko euh, dund nañu ko dem nañu ba créer fi slogan euh, engagement communautaire ndax jàpp nga ne engagement communautaire bi askan bi réussir na ko du moment que ñu ngi wax ne que ci ayu bés gi nu génn euh, vraiment nañ ko waxte dee la propagation elle est en baisse ndax jamono ji dépassé tuñu trente vingt personnes contaminées ci journée bi bien vrai que ñu ngi ba tey ci taux bu normal bi nga xamante ni nekkoon nañ ci nombre de test évaluer yi par par jour maanaam mille jàpp sept cent naka nga jàngatee euh, bés bi ñu nemmeeku ci Covid 19 bi. bon d'abord il euh, lu ñu lu ñu rafetlu ñu rafetlu la dolli di sant yàlla la parce que euh, comme seetlu la te ñu gise ko noonu loolu d'abord euh, bu dul noonu sax loolu dañu war di sant yàlla mais déjà nga constaté lu nga xam ne c'est ça ça progresse favorablement sant yàlla la mm-hmm. euh, donc mooy mais pour man tout ce que tu dis en réalité jusqu'à la fin de la pandémie dama bëgg a rester humble mm-hmm. ak modeste parce que li xew suba yàlla moo ko xam te bëgguma ñu wax li tey ñu ndamu bu subaa mu kii tant que xeex bi jeexul euh, nañ ko constaté rafetlu ko kontaan ci. buñ ko dund parce que buñ ko dundee day tax euh, ñu bàyyeeku te te bàyyeeku bu amee euh, problème day posé wu. da wax lu am solo mu nga ne engagement communautaire. depuis le départ gestion Covid bi ak lépp yàlla defar nañu. man dama ko yàgg di défendre l'engagement communautaire avant sax ñu wax affaire cas communautaire. pourquoi mu am ñu koy def boo ñu xoolee même depuis bi ñu naan nañu rapatrier. je pense que j'avais défendu au Sénégal que bu mu am. man metti woon na lu ne dégg naa ko ci. Euh, parce que am na la vérité scientifique n'est pas une vérité bu nga xam ne dañu koy gis tey. te pour man doomu aadama bu la leere na xam nga lii mooy solution bi te boo bàyyi sa peuple ñu sa ñu am leen dal. te yow xam nga ëllëg lu leen dal yow la. quel que soit lu ñu la wax quel que soit lu la def assumer la même si toi toi tu dois da nga war disparaître mais disparaître pour bien peuple peuple bi. parce que peuple xamul ñu si bëri xamuñu par rapport ak Covid bi par exemple ku nekk am na loo xam. maintenant il fallait prendre ses responsabilités c'est que pour bu mu ñëwee man leen euh, la lutte se gagnera par la voie communautaire communauté parce que du loo xam ne dañuy xëy inventé ko dañ ko kii. jàng nañ ko dund nañ ko ci liggéey nañ ko man yàlla def na ne OMS euh, defe naa ne euh, fukki at tey dama bokk ci dëkk ci Afrique ci ci àdduna ci juróom-ñett yi nga xam ne bu ñu nee sibiru jeex na fa ci àdduna juróom-ñett yi ñun dañuy dem ñu laajte rapport fan lañ jaar ba ne sibiru jeex na xam nga mënuñoo dem ci lu mel ni Chine ñu saytu lépp xool fan moo am kër ak hôpital ba mu mel rapport mais dafa am rapport yi ñu jot nan lañ ko liggéeyee nan lañ ko xeexee am ce qu'on appelle des échantillonnage ñu dem fa xool mais li ci am solo rapport bi danañ ko jot actuellement bi ma la ngi jot ñetti rapport dëkk pour seen élimination y compris pour la Chine lañ la ñuy xool ñetti weer lañ koy xool ku ci nekk ci ñu dina xool lan moo fa war a am problème ak fan lañ ko jaaree am loo xam ne boo ko tuddulee rek ñu ne dafay tappal rek ne éliminé wul mhm. parce que jarul sax donc loolu la dund xam ne dafa am résultat yu mu joxe mhm. te bu doon encore une fois ko liggéeyee parce que parce que jërëjëf dañ ko liggéey parce que voilà dañ ko exécuter et puis et puis am ci preuve mm-hmm. dëkk bu mel nii et pourquoi j'insiste sur l'approche communautaire mm-hmm. parce que man su may défendre benn politique dama koy wax en matière de santé ah, Algérie bi ñu tollee ba mu laaj nee ne lente sa ci sibiru jeexul yàlla daf ma suturaal ñu euh, OMS contacté ma pour ma dem accompagner Algérie mm-hmm. ak yeneen nattango pour xool est-ce que fi ñu teg seen tànk noonu la ou pas li ma njëkk a bi ma ñëwee dama leen ne doon xool est-ce que y a une approche multidisciplinaire pluridisciplinaire est-ce que am na approche surtout communautaire bu ñu ma waxee ma xool lan lañ tuddee approche communautaire parce que danaa ñëw li tax euh, euh, euh, bu sell bu baax bi dafa am ci solo <laughs> damay laaj lan nañ ko dañ may expliquer lan mooy seen approche communautaire nan lañ ko liggéeyee nan lañ entendre communauté parce que mën nga communauté te ni ko tuddee du noonu <laughs> ma ne kon c'est bon bi ma ko jotee ba xool ma ne kon dinaa ñëw Algérie parce que loolu foofu noonu la donc bi ñu ñëwee et puis yeneen ko naataango loolu lañ gis yeneen dëkk yi donc bi mbas bi ñëwee te gis nañu Sibiru approche euh, profil épidémiologie boo xam ne lu ko gën a dangereux ak li ko gën a doy waar ci transmission bariwul ci àdduna ci wàllu feebar te mooy li gën a rey ci àdduna ak lu muy lor ñaar téeméeri ñaar téeméeri million ñaar téeméeri million deux cent million de personnes par at dañu leen Sibiru en moyenne minimum minimum mooy li ñuy gis nag en réalité en moyenne juróomi téeméeri juróomi téeméeri junni nit cinq cent mille personnes dañ ci faatu par at te lépp nag pratiquement Afrique lay xewee te buñu demee lu mel ni Sénégal fi ñu ci toll ak yeneen dëkk yu mel ni Algérie approche communautaire bi lañ ko liggéey ba mu jeex en tout cas ma concernant ci laa liggéey Algérie ba mu jeex takk y compris ak sama ñi ñuy jàngal nag ak ñu ñu jiitu parce que nag du yow rek am na ñu la ci jiitu il faut ak ñu xam ko ñooñu ak seen ñoo ko def ñu jàpp ne approche communautaire bi mooy parce que approche communautaire bi am mhm. gis nga képp ku la ne moom mooy faj lépp day doy waar. képp ku la ne moom moo ko jàng dafa war moom moo war a faj lii da lay nax. pourquoi approche am solo dafa am deux aspects la sur si Covid bi ak ci wàllu jàngoro yi moom a ce qu'on la prise en ak la prévention. Mhm. loolu mooy xeexu jàngoro. ak leneen dugg ci biir prise en charge mooy lan mooy nga ñëw xool nit ki diagnostiqué ko la diagnostic peut être clinique peut être biologique mooy mën na xool ci ñu ko xoolee ne. mën na nekk également ci ni ñu ko seetu ba gis ko mais lépp lu koy euh, antu mooy li qu'on appelle l'interrogatoire xool est-ce que kii kat xam nga du ma ñëw rek di mosuma xam ko bi daal ñu ne ñu may xool du xool. Mhm. loolu mooy prison après ñu xool lan la ñuy fajee bu fekkee am na garab. beneen bi fa laay jaaneele. Mhm. beneen bi la prévention. Mhm. mooy nan lay def ba moytu ko mais surtout la prise en charge il a la prévention. Euh, xam nga tey boo demee Sénégal ak dëkk yu bari. ci Afrique dañ ne seen loxo jotul seen ginnaaw. bu ñu bëggee it mënuñu lépp état bi nga am mu ngi def man ci man man dama bokk ci ñi encouragé état parce que encouragé état day tax toujours ñuy góorgóor gën a góorgóorlu am na gox yoo xam ne mënuñoo gis docteur infirmier sax mënuñu ko gis yomb leen ñooñu il faut que am ñu leen faj xam nga ñu leen fajee dañuy jël ci ci gox ba ñoo xam ne jàpp nañ ne xam mun boo leen expliquer ñu comprendre mhm. expliquer ñu comprendre nga ne leen nit ki bu ñëwee pour am ne siburu wala covid bi jëlal nga xool température boo xoolee ñu naan screening en loolu approche communautaire boo ñu jëlee ñu di screening la xool ndax am na fièvre. alors professeur dama bëggoon ñu taxaw foofu noonu foofu il faut ñu taxaw fu baax a baax c'est vrai que laal nga pàcc bu am solo moom mooy prise en charge bien vrai que euh, bi ñu ngi koy doog a dund muy Covid 19 c'est une maladie nouvelle et puis euh, situation la boo xamante ni euh, c'est nouvelle ci ñun dëkk yu mel ni Sénégal rawatina Afrique prise en charge bi buñ ko wax mais tey jii yow ku la wax xam. aussi xamee la ci wàllu xeexum paludisme nga liggéey ci pàcc bu rëy ba daanaka sax am ci ay raaya yu bëri ci bitim réew euh, tey bu ñu nee nawet jot na bien vrai que Afrique euh, Covid 19 bi sonal nañu mais pas à ce point comme ni mu sonalee yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew mais fii ñun sunu sunu réew yi sunu réew yu dem ni Sénégal euh, pratiquement feebar yi ñu gën a sonal bokk na ci paludisme muy sibiru sibiru nag euh, daanaka symptômes fébriles yi dañoo xaw a nuroo trop ak Covid 19 prise en charge boobu laa bëgg ñu taxaw parce que ñu bëri tey ñu ngi amee doomu jàngoro yi sibiru ragal nañoo dem hôpital parce que tout simplement c'est des symptômes fébriles yoo xamante ne ñu ngi koy sentir comme yaram buy tàng woccu miir. te da nga naan carrément est-ce que man corona wu ma toog sa kër loru est-ce que tey jii du ñu jàpp Covid 19 di ko xeex di ko xeex ba bàyyi doomu jàngoro ji nga xamante ni yàgg nañoo sonal te daanaka mooy pratiquement li gën a sonal askanu Sénégal muy sibiru. question bu am solo bu am solo macha allah day def may fekk si ci démarche bi ma doon expliquer par rapport à l'engagement communautaire day lijjanti lépp. Mhm. gis nga suñ ci mayee deux minutes ba ñu expliquer ko. dina lijjanti lu bëree bëri et pourquoi c'est important pour ñu ñuy déglu c'est important parce que ñàkkul ne parfois doo ko am di ko wax tout et c'est pourquoi je reviens sur l'engagement communautaire mooy indi sibur boobu parce que kooku ñu jàngal ci gox bi kooku li parce que kooku dafa am bu ñu la jàngalee ba pare dafa am lu ñu naan dafa am kuy joxe kàddu ci gox bi kilifa gi ci kilifa diine gi kilifa aada ga chef de quartier wala village bi mooy joxe kooku fa dëkk parce que dañ daan ko mën a xoolee ci kër yi xool leen mais dëkk boo fay dem dafa laaj dafa am borom dëkk dëkk bi da nga koy laaj aviam kooku mooy permettre donc comme leader communautaire boobu mooy tax kooku ñu jàngal kooku docteur bi ñëw jàngal ko wala ñu ñëw jàngal ko ñu ne ko demal mursem ci kër am possibilité bi parce que bu la docteur ak autorité joxe autorisation mm-hmm. waa gox bi dañ la jox autorisation ce qui fait que ko jëlee lu bëri dañ ko gis à ah, c'est l'enseigne que aujourd'hui comme moo wax tax wax la ko loolu mooy li tax euh, c'est important parce que ñi ñëw ci hôpitaux yi très ni mu ko waxee léegi euh, ci par rapport au professeur lu très souvent lu néew fay ñëw ñu bëri dañuy jëm ba télé soog a ñëw hôpital donc bu fekkente ne dañu bëgg a liggéey ci lu mel ni siburu wala wala covid bi surtout jamono ji il faut que ñu xam ne ñiy jàngal du doon rek docteurs yi wala professeur docteurs yi ñu jàngal wala infirmiers yi les leaders communautaires non seulement dañoo war a xam parce que bu ñu xamee ñoom mën nañ bokk ci xeex bi et surtout que dañoo fekk fu mu toll nii période bi nga xam ne mën nañ ñaar ji daje mm-hmm. pourquoi c'est dangereux xam nga dañ ne covid ñu dugal ñun bi bi ñëw bi ñu demee ba affaire bi dëgër OMS woo ñu ne leen donc dugg leen ci comité Covid parce xam nañu ne jàngoro yi benn la. Mhm. gestion yi benn la. Mhm. te ni ngeen ko lijjantee ci sibur bi euh, mën ngeen ci ci Covid bi ba mu jeex. Mhm. ci garab gi ak ci lu bari. donc tey dafa am ñaari maladies yuy daje. kon appelle siburu ak Covid 19. da nga dégg ci ñëpp ñu naan Covid bi ñu mu sonaloon mooy mag ñi ak ñi am comorbidité. comorbidité mooy am na beneen jàngoro bu la dal bi gën a doy waar ci jàngoro ji jamono ji mooy siburu. donc képp kuy dox tey Sénégal jàppal ne mën nga am ko au delà personnes âgées yi au delà am ñi am diabète et cetera donc bul xool ne kële moom yow sax man sa bopp jàpp naa ne mën naa am ko pourquoi ma am comorbidité sibiru boo nekkee dans dëkk boo xam dafa law mën nga ko am mën nga am doomu jàngoro bi te feebaruloo parce que y a deux façons euh, nit ci loolu mhm. am na ce qu'on appelle les malades ñoo xam ne ñoo ñoo ñoo tëdd wala ñu am feebar ne am na ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques am nan doomu jàngoro bi feeñul doomu jàngoro ba xam ne dafa feeñul sa yaram am na ay soldat yoo xam ne mën na la may doole ba mun ko xeex moo tax boo xoolee sibiru gi mu doon gën a faat mooy xale yu am ba juróom ak jigéen wérul seen immunité day daanu léegi bu fekkente ne yow sa yaram am na ay si doomu sibiru sa yéen doon aar ñoo fa nekk ne di xeex sibiru bi ba du jóg parce que anticorps ñoo fay nekk loolu bu deneen nu ñëwee amuñu jotu lijjanti leneen bi donc dañuy fragile donc Covid bi day mën a dugg facilement. Mm-hmm. def lu muy def indi cas grave. Mm-hmm. moo tax jamono ji c'est jamono ji bu doy laa surtout ak inondation yi. moo tax il faut que tous les Sénégalais xam ne tey amul kenn koo xam ne rek moo tax lu tax lutte bi maanaam buñ ko nañ ko fexe ba nit ñi continuer ko ça permettra ñu ñu aar bakkan yu bari parce que laaju lu bari. Mhm. boo xamee ne tey yow boo amee symptôme war nga mën dem ñu xool la comme ni ko waxee mhm. parce que ça te permettra du rek Covid bi parce moom ak sibiru dañoo bokk symptôme bi gën a doy waar mooy yaramu tàng mhm. boo demee hôpital dañ naan matière de paludisme bu wérulee nga yóbbu ko hôpital loolu la ngay wax hmm. covid bi bu yaram bi tàngee ñeen la mën a am covid hmm. donc ñoom ñaar mën nañ tasati yaram hmm. te bu ñu yaram du baax et c'est pourquoi aujourd'hui ñu gën prudent sur ça et surtout ci lépp luy mesure de lutte et c'est plateau bi Euh, j'en profite pour faire un appel pour deux pour deux raisons bu njëkk bi pour fexe ne lii mu arrêté pour ñeneen ñu bañ a lor buy loraat c'est-à-dire que aujourd'hui euh, képp koo xam ne seeram tàng na fexeel noo mën ñu saytu la te koo xam ne yaakaar nga ne mën na ko faj ci gox ba te muy su qu'on appelle les DSDM on les appelle les dispensaires de soins à domicile mm-hmm. loolu ils sont reconnus dañ leen ne leen encadré mm-hmm. wala nga mën boo amee hôpital nga dem ci infirmerie bi wala sa koo mën dem mu xool la mu faj la bu loolu weesoo yaa ko on appelle les mm-hmm. gis nga mesure préventive yi jamono ji dafa am solo trop mooy set bi lépp lu ñu mën a dimbali pour ndox mi génn ci kër yi ba kër yi set te kooku même des jeunes ou des des des des jeunes communautaires parce que foofu aussi dañuy intervenir. bu ñuy gisee kër boo xam ne am na mhm. tilim wala kii na nañ dem dimbali ñu raxase leen kër gi. Mhm. parce que dina leen aaral ci Covid bi dina tax également flaque d'eau yi doon indi sibiru mu jeex donc ku ci nekk tey mën nga jouer un rôle extrêmement important pour ñaari maladies beneen bi nag mooy ce qu'on appelle l'utilisation des mesures yi ñuy édictées ku am gel bi pour Covid bi extra masque mhm. keneen ki mooy koo xam ne moustiquaire tey jamono ji ñu toll ku mën a nelaw ci moustiquaire parce que mathématiques yooyu tax mu doy waar hmm. xam nga en fonction des niveaux Sénégal boo ko xaajee ñaar ñetti partie la hmm. ci suuf y a ce appelle la zone chaude en matière de palu foofu suuf euh, dafa bëri mais foofu il faut à peu li ñu naan quatre cent piqûres de moustique hmm. ñeenti téeméeri piqûres de moustique parce que foofu les gens sont immunisés très souvent au palu pas immunisés collectivement euh, euh, euh naturellement mais am na benn immunité ce qu'on bu la laalee te war a mën a a denc parce foofu ay lu mat ay ñeent fukki piqûre da gis kenn ginnaaw ah, fi ma dëkk de amul problème parce que sibbiru bi yaram bi mis na ko mais ki nekk Dakar nga xam ne par exemple fi yooyu infecté yi bariwul mhm. foofu benn piqûre bu la piqué rek mhm. mën nga fa jële doomu jàngoro bi mhm. te imaginer la bu duggee ci kër mën na wàllu ñëpp comme ni Covid di defee parce que yoobee koy joxe su ko fekk fi may daanelee c'est important que nit ñi di jamono ji ku mën a nelaw ci nga nelaw ci. parce que mooy première mesure bi. fi ma bëgg fi ma bëgg dellu si moom question la boo xam ne ñoom ñett ñëpp ku ci nekk mën nga cee tontu. Mhm. parce que dafa am lu ma yéem. li ma yéem mooy euh, professeur ku ne xam na Sénégal fii ay boroom xam-xam rek la ñu am ci wàllu santé. Mhm. bitim réew sax dañ fay jógee ñëw di jàng si fii. Mhm. ku ne xam na seen xarañte. lan moo tax Covid 19 bi. sonal ñu bell solox bi te Ebola. moo gënoon a doy waar. te Ebola benn cas dugg Sénégal ngeen freiné ko. ndax dafa am lu laxasu ci biir politique la wala ay naxee mbaay la wala dañoo buggul mu jeex maanaam wutukaayu xaalis da cee nekk cest à loolu il faut ma laaj la ko ab en tant que spécialiste parce que nag Ebola moo gën a doy waar benn cas fi dugg ngeen maîtriser ko beneen duggaatu fi bii nag moom booba léegi ñu ko bàyyi muy dem ngeeni ay borom xam affaire bi law mu yéem ma lool léegi nag loolu laa bëgg a xam tappale da cee nekk wala itam wutum alal la wala est-ce que feebar bi dëgg la parce que bu ñu demee ba xalif général des mourides wax ne nañu def màggal gi moom kilifa gu mag la suy jël décision am na fu mu mhm. bu demee bay jël décision boobu war na am fu mu ko teg lan la lan moo ci nekk au fond waaw ba en tout cas man li ma xam mooy waaw euh, d'abord par rapport ak tappale bi euh, am waa naxambaay bi non du naxambaay moom amul mhm. parce que lu ñu lu teg bët la lu ñu teg man yàgg naa ne covid coronavirus yàgg na am ci àdduna mhm. peut-être que bii moo tax ñu tuddee ko Covid 19 dafa am lenn lu ñu xamul parce que c'est un virus qui est extrêmement dangereux parce que day muté lu bari. Mhm. mooy genam man yàlla def na ne loolu juróom-ñaari at wala jàng États-Unis mhm. ci ni microbe yi di muté woo ni ñuy dundee. Mhm. ba tax ñu dugg ci yooyu donc virus la boo xam ne dafa am particularité. ak virulence am cest à que même si boo ko comparé Ebola bi nga wax Ebola létalité am ak coronavirus bokkul. bokkul Ebola mu gënoon dangereux. d' abord par rapport à la maladie Ebola boo jëlee téeméer ci nekk juróom-ñaar fukki da leen doon faat. moom bu leneen Ebola nit am na ko rek moom mooy pratiquement c' fini. Mhm. ce qui n' est pas le cas du coronavirus de la Covid 19 euh, pour plusieurs raisons. Mhm. approche yi euh, c' est pas très très très euh, li li li leen wutalee bariwul trop trop trop parce que encore une fois je reviens sur l' approche communautaire lu ci bari loolu la. Mhm. ak décision yiy jël par rapport à ça bon maintenant peut-être bon. ñàkkul ne ébola peut-être que euh, voilà bettuñu parce que boobu Ebola wëroon na ñu ngi woon kii te Ebola peut am na temps avant muy ñëw ñàkkul ne peut-être. Covid bi it bett leen de. waaw Covid bi dafa dafa raam lu yàgg nekk Chine ñëpp di seetaan waa Chine. je suis d'accord Covid bi la Covid bi bettu leen. waaw dëgg d'accord naa ne bettuñu. parce que ñun suñu rôle xam nga loolu la ñun nous ah. sommes des rôles de rôle conseil la ñu am ñun. dañuy xelal rek. Euh, te nag euh, boo sañoon bu dara di xew su sa dëkk. boo ko ne bi Covid demee au delà même euh, euh, de de de de de bañ ñu rompre les ñu tëj yi. Mm-hmm. ñun am nañu possibilité en tant que OMS. Mm-hmm. bu ñu bu ñu yeneen am na temps ñu naan OMS nañu yóbbu expert ñu dem Chine et cetera fenn. Mm-hmm. ñun mën nañu dem ba tey suñu bëggee dem en tant que expert mën nañu dem parce que OMS day ubbi bunt yi. frontière mais on a préféré rester chez nous. parce que dama xam ne période boobu expérience bi ñu ci am ak li ñuy li ñu dégg li ci bitim réew. Euh, mën na ci jouer lu bëree bëri. donc pour te dire que rek moo taxoon encore une fois ñun bon man dama jàpp ne ku nekk rek mu ngi def li nga war def man loolu laa jàppee leneen luy laxas man comme li ma wax léegi sama wax euh, lu ma xamul du ma ko wax. Mm-hmm. te damay rafet ñott na ci doomu aadama yi. Mm-hmm. ba jusqu'à la preuve du contraire. Mm-hmm. parce que lu ma dul nangul sama bopp du ma ko nangul keneen ki mais en réalité je pense que pour l'essentiel ñun ñëpp euh, lu ñu def lu ñu bëgg mooy defar ce qui fait en réalité au départ. gis nga comme je dis affaire rapatriement j'ai été très clair. Mmh. maintenant ñun on est lañu euh, stratégie bu ñu ko degee ah dama naan nañu xool ndax baax na bu baaxee ñu ne am pertinence bi. Mhm. maintenant euh, am na nag ñoo nga xam ne toujours ñooy nekk ñoom ñoo koy ñoo koy ŋànk. d'accord non ci loolu sax laa nekk ñoo koy nantoo ci loolu laa nekk monsieur Niass. Mhm. xam nga tey jii euh, weer koor bu jotee ustaas yi borom xam-xam yi ñoom ñooy jiitu ñëpp topp seen ginnaaw ñu ñuy wan yoon wi mais tey lii jàngora mu am fi ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ay professeur ak lu nekk nekk fi lan moo tax ministère bi nga xam ne moo yor wàllu santé ñoom yi neen ñuy taxaw du ñu wax alors que am na ay borom xam-xam yoo xam ne ñoom ñoo waroon a jiitu doxal affaire bi ñoom ñi nga xam ne le ministre nekk ci ginnaaw gunge leen ñoom ñu nekk au devant de la scène mais gisuñu loolu te loolu moo tax may laaj ba xam ndax amul leneen lu ci laxasu am déet. Euh, man nag bi tey. Mhm. vraiment mhm. euh, ba may xal di jàngitam itam dama mos di bañ li ñuy wax disserter sur le sexe des anges mhm. te li ngay wax génnul loolu mhm. affaire ministre bi laak professeur bi laak hôpital bi fi nekkul foofu bugguma ko ci yoon a jiitu mais moom mu ko gën a xam boo ko seetloo fukki at ak juróom yi passé les géants de la pharmacie parce que pharma bu njëkk dafa amoon industrie pharmaceutique mm-hmm. léegi dafa jógee dafa dindi pharmaceutique bi mm-hmm. di nekk rek industrie mm-hmm. maanaam industrie boo xam ni moom dafa war a distribuer ay dividendes parce que ay milliards yi milliards yi milliards ñun Sénégal ak mbooleem réew yi def nañ ko ci ay vaccin ay médicaments yoo xam ne mosuñ caa ubbi benn nañ ko indee denc ko ba période bi kii bi jeex. date de péremption tuur ko mu nekk mbalit dafa am amati amati xam nga la grippe aviaire euh, ki SARS bi nga xam ne mooy maamu euh, kii bi moom itam euh, à la fois rétrovirus la ak. Euh, kii. Mm-hmm. Euh, waaw dégg nga ak euh, boo xam ne mode mode préférentiel am mooy la voie aérienne. Mm-hmm. bien que dana contaminé par d' autres voies. Mm-hmm. bon léegi ci diggante bi jënd nañ fi lu baree bare ñooñu nag ñoo ëpp doole docteur yi ëpp doole ministre bi ëpp doole ñeneen. parce que note bay wax ne jënd leen ko ci OMS lay jóge jënd leen contre SARS jënd leen contre. bi ñu waxoon ne xaw ma ci ay xaj lay jógee ci ay nangam mm. nangam ci ci nangam maanaam diggante bi rek moom mii mënoon na ko énumérer bu ko bu buñ ko énumérer woon tey énumérer li ci Sénégal def ci xaalisam ak fa mu mujj mooy gën a nekk scandale sax affaire euh, affaire mbënd bi nga xam ne jël na sept cent et quelques milliards mm-hmm. waaye ñun loolu ci dépense bokk c'est que léegi santé dafa am benn côté boo xam ne du ma wax ne c'est mafieux mais ça les allées les allures waaw waaw mooy li ma wax industrie la te loolu dafa dem ba ci pharmacie yi li uh-huh. nga pharmacien bu njëkk uh-huh. dafay xool zone bi mu nekk garab yi yi nga xam ne moom lañ gën a soxla moo xam ne antipaludique la wala yeneen wala yeneen mu jënd ko léegi pharmacien bi danaa wax ne tey ci Dakar pharmacie yi fi nekk ay dizaine lañ mais xëy na dix ñoo ci spécialisé ci jaay loo xam ne vrai garab la mais faux médicaments yi seen filière dañuy jaay léegi ci biir pharmacie yi c'est que que docteur bi dina la prescrire nga dem njënd la garab lu jëriñ dara nga dem beneen docteur kii la beneen fekk du ci docteur bi du ci garab gi ci filière bi nga xam ne mhm. pharmacie bi nga xam ne moom itam dafa dafa kii dafa takk mhm. maanaam mi ngi mel ni ndox mi mu doon wax ndox mi bu njëkk ndox mu set la woon léegi jaxasoo na ak ndoxu fos bi loolu am na ci pharmacie yi parce que léegi pharmacien bi rien que li muy fay loyer dana koy ñàkk a gañe danañ mën a ñàkk fay mhm. ay employé am danañ mën a ñàkk fay courant donc dafay obligé pharmacien bi nga xam ne docteur la pour mu nekk moom itam comme une officine pour gagner le plus d'argent est-ce su ma la déggee bu baax da nga ne dañu toll ci situation boo xamante ne nii il faudrait ñuy créer des maladies pharmacie mbedd yi daal dugg nañ ci pharmacie yi am. voilà pour ñuy. Uh-huh. sama may rek. Mhm. waaw foofu euh, c'est important parce que c'est euh, par rapport à ça parce que. soo faano jëwee sànq au par quand je parlais de suivi évaluation et contrôle qualité assurance mm-hmm. qualité mm-hmm. je pense que le l'élément le plus important euh, boo ko xoolee nee na euh, dem na dix pharmacie ñeneen parce que en réalité dafa am ce qu'on appelle ay germes yu dugg ci système bi ci lu bari euh, c'est vrai que Sénégal nag bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo ci gën a am avancement par rapport boo demee si si yenn sous région bi mm-hmm. boobu c'est c'est autre chose kooku nit day xëy sax créé pharmacie am mhm. maintenant parfois dem ci wax mais man li ma ci gëm xam ko parce que aussi moom laa wax c'est-à-dire que loolu laa gëm xam ko yaakaar ko mooy euh, dañ leen ñu si bëri dañ leen a rax mais le pharmacien d'abord vrai kii liggéey te am na fi ñoo fi nekk ñooñu mënul mënoo wax ne à garantie à 100 pour cent effectivement que tous les produits yu ñuy recevoir am na qualité loolu amul fenn fu ñu ko mën même si l' mooy y' a ce qu'on appelle direction médicament lépp dina fexe ba médicament buy ñëw moom qualité mais n' empêche parfois du ñàkk am lu ñu glissé ci suuf loo xam ne kenn xamu ko maintenant maintenant mm-hmm. foofu foofu mm-hmm. Euh, du responsabilité bi mm-hmm. foofu du parfois sax dafay dépasser responsabilité de na loo xam ne amuñu malheureusement doole contrôler tous les médicaments qui arrivent euh, qui entrent loolu mooy donc mënut a mën a glissé ce qui fait que ñun dans études dañuy xool toujours efficacité et qualité du produit. Okay. parce que day am maintenant euh, am na ñoo xam ne moom comme il l'a dit malheureusement lu ci gën a rax nag foofu la bokkee mooy ce qu'on appelle le marché illicite. problème bi yëpp foofu la muy muy nit day xëy. Mhm. teg ci taabalam di jaay garab. wala mu yàgg sax bu dem ba nekk table ba ñu jàpp ne pharmacie la mais en réalité daf ko tuddee loo xam ne doon woon pharmacie pour jaay ay médicament homéopathique leneen la. Mhm. mu dem ba dugal ci lu ci bokkul. léegi nag raxaale pharmacien bi alors que le pharmacien ak pharmacien bi ñoom li ñu leen xamee mooy jaay lu baax ak jaay qualité en tout cas le Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne comme moi je le dis euh, de exemple lañu ci en matière de pharmacie par rapport aux médicaments malheureusement il faut que égal là également la appel par rapport à l'état il faut que état dimbali les pharmaciens par rapport aux médicaments pour que ñooñu ñu leen rax ñu génn leen ci mais les pharmaciens ñi ma xam di ko liggéey vraiment comme moo tax li mu intérêt ma wax ci lu baax la ñuy def di ko liggéey et il faut que ñoom sax ñoo gën a soxla ñu leen jàppale pour contrôler par rapport à ça. alors fa pharmacie illicite boobu sax je pense que leneen la ci ci ci wàllu mais pour pour dire vrai rek l' pharmaceutique tey euh, ñi ko jiite au niveau euh, mondial da lay leer ne du ñu des pharmaciens mais des businessmen yoo xamante ne nii euh, mën nañu fexe ba contourner mbir ba teg ay virus ba taal koy tasaare ci monde bi rien que pour écouler benn marchandise da leen koy jaral. waaw loolu je fuis pas le débat parce que parce xam nañu li nekk waaw li mu wax moo ci gis nga gis nga nga bu ñu demee man su ma demee su may dem réunion euh, OMS expertise mhm. chaque réunion bala ngaa dem dafa am su ko appelle da ngay signé da ngay signé document de confidence de de de mhm. mooy maa ngi ñëw mhm. mais professeur Maïssa bu fekkee day jaay garab wala dafa mos a liggéey lu wàllu garab du bokkul sax ci wàllu réew bu dee Covid la ñuy wax par exemple may sa jaay day def dafa am pharmacie en fait industrie pharmaceutique bu am doole euh, muy jaay n'importe quel médicament dañuy xool ndax professeur Maïssa mhm. ci at yi ñu weesu mosumaa jox valeur bu ëpp juróomi 5000 euh, dollars mhm. comme ça pour ma ñëw défendre idée wala défendre koo xam ne moom xam na ko mu ciy kii conflit d'intérêt donc loolu dañ ko ciy pousse pour ne ne tout le monde l'accepte que am na mhm. képp ku naan amul waxul li li mu xam man li ma wax mooy li ma gëm la loolu am loolu dama koy signé chaque fois mhm. et chaque fois da nga koy répété boo mën a dem suba Chine par rapport à une mission dama koy signé bala maa dem parce que après c'est une déclaration sur l'honneur et puis ñoom dañu vérifier pour dire marché là ak ce ce ce combat là li mu ko waxee dafa am par rapport au au au au Euh, parfois euh, nos états sont impuissants par rapport à ça parce que dañu am doole dañu am doole parfois di ngay dégg lu bëri muy xew gars yi dañ leen ko yenuloo attanuñ ko te am na fu ñu lay jaar foo xam ne moo tax wax naa ko ci benn télévision bi ñu mën dugalee ci Covid bi muy euh, muy situation bu sensible ak lu doy waar par rapport à médicament bi ma xoolee ñi ko vingt cinq yi ko yi ko bokk Afrique moyenne d'âge bi c'est pratiquement soixante sept ans sant yàlla je pense que man maa ci maa ciy xale mooy ñooñu amatul lu ñuy wut ci àdduna xaalatuñu lenn ñooñu te ñoom mooy majoritaire bi ñooñu doo leen parce que loolu dafa bokk ci li tax jël leen mooy ñii kenn mënu leen ger kenn mënu leen jaay doole kenn mënu leen tënk ci fenn fi parce que il faut pas l'exclure moo tax suñu rôle ñun aujourd'hui mooy ñu xam ne sa existe et c'est pourquoi même yaa ngi ko di affaire vaccin bi chaque jour nga ne la kii génn na ngi génn vaccin et cetera course la contre la montre par rapport ak ku nekk li nga mën a gagné. parce que ñu ci bëri. ñu ciy bokk nag ñenn ñi bokkuñu dara ak corps médical. am nañu xaalis euh, parce que tey man su ma bëggoon ne wala professeur Maïssa baabu dafa bëgg a créer benn industrie benn lu mu mën doon du sax pharmacie lu mu mën doon parfois tu n'as pas les moyens. am na koo xam ne xool nga ne moom la ciy liggéey filière am te am na lu mu ciy apporté. Mhm. ngeen xool. mais doo ko mën a tu crées une maison de presse. Mm -hmm. alors que t'as jamais peut-être fait une école de journalisme. am ba nga rek. Ah. y en a combien au, au Sénégal. Les, plus grands clubs ça parce que kooku mën na am yeneen ambition yeneen objectif. Ah à travers ce médium qui est très puissant. te ñoom am doole loolu mooy problème bi nga xam ne en réalité période bii loolu lépp mën na cee xew. moo tax qu'on soit très vigilant et puis surtout que également bu ñu nangu que muy ci média lu mu mën doon ñuy déglu ñeneen ñi nañu ku ci nekk da am fierté ci doomu réew sa doomu boo ko joxul doole. nangul ko ko boo nangulee keneen ki day poser problème te jamono ñi xamuñu li xew ci biti d'accord ñun suñu rôle mooy protéger nos pays li ma bëgg a ñëw mooy xam nga man dañ maa yar ci waxtu waxtu moom bu ñu mënee jeex na moom man fu débat bi toll fa laa koy daggee ndax ñu ngi may def signe ne ma li ma dese bëriwul ay 3 minutes laa dese parce que dañ maa yéex a xool affaire bi ñu ngi may def signe ne 3 minutes donc nag te il faut ñu teg waaw waaw waaw ca vas-y deux questions yoo xam ne ça me taraude un peu la Pape Ahmed Khalifa. Uh-huh. donc ma wax ko ñàkk koo wax y a des gens yoo xam ne. Uh-huh. Euh, lu bari ñu ngi koy laaj ci seen bopp quoi même bu ñu ko waxul sax peut-être que amuñu occasion aussi laaj la ko man euh, euh, weddiwuma la ci dara je sais que vous êtes quelqu'un boo xam ne am nga xam-xam macha allah vous êtes quelqu'un boo xam ne li ngay wax xam nga fi nga koy teg na nga koy waxee ak noo koy waxee. Uh-huh. et vous répondez exactement les choses comme elles se doivent. mais ma question qui me taraude la tête mooy. pourquoi est-ce que c'est est différent entre vous ak ak ak ay et, et les autres oustaz pourquoi lan moo tax tout le temps entre yow ak ñoom muy am benn benn benn benno quoi man man c'est ça muy man ma laaj ko wala une autre personne loolu jaaxal na askanu Sénégal bi donc bëggoon naa nga leeral ñu si un peu pourquoi c'est différent pourquoi mu am benn problème entre yow ak oustaz d'accord d'accord waaw ñu dégg ko mhm. dafa man lañ ci benn bi nga xam ne mooy conclure lii may wax te comme moom professeur la uh-huh. moom dafay limité ci li nga xam ne bu ko xalaatee mënu koo wax uh-huh. ñun ñu ëpp leen liberté ci wàllu d'abord uh-huh. boo nekkee euh, prêcheur sa première chose mooy dénoncer tout ce qui ne va pas enjeu bi yëpp duy yëpp ngeen gis yàlla dafay def euh, siècle siècle yi daf ci am boo xam ne doole ju bees da ciy juddu actuellement Chine ak l'ensemble de l'Occident dañu nekk en chien de faïence léegi domaine du combat yi fii la l'argent la Chine a gagné sur le plan de l'argent Chine dem na ba tey jii bu ko neexoon tey dollar tey tey ci benn heure mu wàcc cinquante pour cent mhm. parce que moo ëpp détenteur da de de de dollar ci àddina bi foofu gagné na fi technologie gagné na fi satellite avion oto lépp mu bokk nag benn bataay bu mag mooy health business maanaam le business de la santé moo tax gis nga bi nga xamee ne affaire bi am na ca Wuhan mënoon nañu def benn alerte mondiale numéro un professeur xam na nu ñu koy lancé boo xam ne affaire bi nañ ko éradiquer du mot un mois dañ ko bàyyi mu daw pour que loolu may Chine mu ñëw concurrencer l'Occident pour defar ay garab parce que ñoom ay seeni garab ay mbott yu wow la ay laalo ay reen ay euh, deru jaan ak yeneen ak yeneen moo tax bëriwuñu pharmacie te loolu dafa nekk masse manque à ci occidentaux yi ndax y un milliard cinq cent millions de médicament qui sont perdus jëlal rek un dollar par jour loolu war nekk un euh, un milliard et de dollars par jour perdu par l'industrie pharmaceutique ñoom ñu bëgg a rattrapé wu foofu commencé nañu stage bi depuis SARS SARS itam Chine la kii woon ah 2002 2003 voilà donc pandant vingt ans yi bataille bi mi ngi préparé wu lii nag c'est c'est le niveau stratégique ñun dañu éternuer rek ci sojom jàmbur mm-hmm. <laughs> waaw dañoo éternuer ñoru ñu tàbbi ngësam lee ñuy daal xoolal ñoom uh-huh. ni ñu baree te ci benn diir bu gàtt uh-huh. dañ daal di presque éradiquer affaire uh-huh. waaw mm-hmm. c'est fini là-bas. te fii Sénégal. te itam Sénégal kat danaa danaa félicité. à haute voix suñu corps médical. Mm-hmm. parce que dama leen dama bëgg rek ay chiffres. Mm-hmm. Qatar. Mm-hmm. moins deux millions d'habitants originaux du pays ils ont eu cent mille cas. du professeur. plus de cent mille cas. nous nous avons nous avons dix mille guéris. trois mille cas en traitement. du noonu débal Israël en réalité ils ont autour de quatre quatre cinq millions d'habitants hmm. ñun mm. on est à seize millions d'habitants ils ont cent mille cas mm. plus de mille décès donc c'est incomparable le Sénégal est à féliciter mhm. c'est pas parce que dañ fee dëkk hmm. parce que man yaakaar naa ne it bu docteur yi defoon lu laj ji damay ne docteur yi def nañu hmm. dëgg la waaye dëgg dëgg ils ont réussi c'est un palmarès c'est quelque boo xam ne wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla karawaas baa ak ma tiim de waaw d'accord waaw acca léegi tontul ki waaw voilà non <laughs> tontu ko lim la laaj koy wax du problème man rek mhm. problème mu la parce que Cheikh mi ngi ak télévision muy def fi ay milliards la mhm. am ñoo xam ne dañ jël seen téléphone daal ñun ñooy xaw ma nan daal di commencé daal di indi benn waay ni mooy kii nga xam ne moo faj feebar yi fi wéer yëpp moo faj tel de d'état moo def naan moo mën lii laa di jël publicité di keel waa ji gars yi di ko yónni mu jox xaaj ni leen ci jox kooku c'est pas wal faj te dañ fee bari le docteur mii professeur bu dégg mën naa wax sax euh, émérite euh, sérénissime moom ci boppam dañuy werante ordonnance bi mu bind ak aide infirmier ba nekk euh, wërësoo gi mhm. ku ci gën a dàq faj or loolu saaga la turu ustaas bi moo dul dëgg man may naa leen us <laughs> kon ñu nekk professeur comme moom li fi toll ci ñoom <laughs> yow daal us nga leen may te uskat ci naaru gànnaar mooy noppi <laughs> acca ah, beneen question bi nga wax oh lan la. beneen question ça concerne le professeur ah. ah, euh, Daouda Ndiaye. waaw. déggoon nañ la. waaw Daouda voilà euh. donc déggoon nañ la temps yii ngay wax sur euh, les étudiants yi ñu waroon a. waaw waaw waaw ñu jékki-jékki déggatuñ la. un silence total kenn déggatu la donc ma doon laaj dañ la jënd wala yaa dañ la fay wala. man daal je ne sais pas daal c'est que c'est juste une question boo xam ne man une fois que j'ai une question qui me vient en tête damay xool nu ma ko reformuler mu gën a rafet et je la pose. mbaa ñu siisee ko waaw je ne comprends pas. dañ la jënd wala dañ la. ah ah wax naa leen ko sànq nee naa leen nee naa leen c'est une bonne mais pas comme les autres xam a dégg moom a ah. bon. tu sais man sama a de sujet boo xam ne dama koy dama koy si c'est il faut éclairer il faut l'éclairer waaye euh, tu sais à dafa am loo gis ak temps yam euh, Covid bi muy ñëw euh, xamuñ ci lu bari yàlla def na ne ñun Covid mu ngi dugg Sénégal au mois de mars ñun au mois de janvier bi Covid duggee Chine def nañu deux réunions à à à l'Union africaine parce que dama bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon réfléchir ci en anticipation par rapport à ça donc am nañu expérience yu bëri la ñu xam ci loolu. Ebola bi aussi bokkoon nañ ci ñi nga xam ne euh, on a travaillé avec la Banque mondiale à travers les centres d'excellence liggéey ak Sierra Leone liggéey ak Nigéria ci lu bari ci loolu donc am na ñu ci xamal lu bari bi muy ñëw on a eu besoin de rassurer la population on a eu besoin de bien communiquer beaucoup de communiquer boo xoolee effectivement même bi may wax ci affaire rapatriement bi au départ c'est le chef de l'État moo ci waxoon après population bi ñenn ñi comprendre ñu ma ne par devoir mon rôle c'est de devant et population lan la war a c'est à la population et aux parents de choisir et waruma leen bàyyi ñu exposé moo taxoon temps yooyu j'avais beaucoup communiqué parce que duggagul woon donc on a eu le temps dañoo tegoon recherche bi fële teg lële mm-hmm. il fallait man rek ci plateau yi expliquer euh, parce que aussi il faut le dire euh, boo ñu yoree seen njiitu réew mu wóolu la ne la communiquer sur ça mm-hmm. euh, loolu honneur la le président Macky Sall ne woon ne ma communiquer ma ci loolu mm-hmm. il a fallu que ñu communiquer ñun on est du corps médical ñu ngi hôpital di def recherche di jàngale période boobu si jàngale mais ñu ngi def recherche ñu ngi def hôpital ma gis ne comme comprendre nañ ko sama yeneen naataangoo yi ak ñeneen ñi am nañu loolu rôle à jouer parce que affaire bi jël lépp tënk ko te am na ñoo xam ne war nañ ci mën a wax nga bàyyi leen ñu wax parce que on ne peut pas avoir le monopole de la vérité de la chose ma ne nañ bàyyi ko gars ñu déroulé bu wax jotaatee dana génn parce que loolu la laaj parce que wax ak liggéey àndul j'ai préféré à un moment bàyyi mosuma bàyyi information te man comme je dis kenn mënu maa jën boo xoolee euh, lu mel ni euh, OMS il va falloir boo leen demee ba laaj leen euh, ñun condition yi ñuy d'accord ak ñoom nga xam ne li ñuy ñor rek mooy xam-xam parce que àdduna bu la dara jaral sa xeet sa xeet bu la ko dara jaral parce que alal bi day jeex nga des ak ñoom mm-hmm. yàlla may na ma tey position bu ma taxawoon ak lépp lu ma leen waxoon ba tey jii du deñ loolu ci kàttanu yàlla la nag moom moo mën rek moo ngay yaakaar di wax mu taxawal la ci mais li doon bon mooy à un moment donné que je fuis le pays wala ma taxaw feneen kii non j'ai toujours été du côté du peuple bi mu laajaatee ma ñëwaat ci affaire affaire yi ay ay ay leneen aussi ñëwaat naa ba tu as vu récemment également depuis un mois euh, contexte bi dafa tolloon foo xam ne am na temps ñu naan stratégie bii stratégie bële coow li bëri ñëwaat naa. loolu leer na mais mais man damaa yaakaar ne professeur est-ce que rafetalul sax parce que xam nga bi mu defee communication affaire dafa jaar yoon. ñëpp d'accord que nekkul gars yi dañu dem ba ragal nga jël seen place moo tax ñu pousse nga bañ ñu ko xoolal na. gëmu ma en 30 secondes rek. Euh, bu ma bu ma may mooy que euh, li nga bokk ci experts yi nga xam ne organisation mondial de la santé tànnala leen euh, si africains yi pourquoi l'Afrique est-ce que la solution ne trouve pas ne se trouve pas loolu bu dul loolu ñun nangu bokk parce que en réalité fu nekk la mën a génne. parce que surtout que on a ni ko euh, euh, sunu sunu kilifa waxee yeneen dëkk yi essayé nañu pendant des mois gisuñu dara lu plausible lu ñu mën teg loxo. donc alors que pharmacopée traditionnelle. moi je parle pas de médecine traditionnelle je parle dafa ñooñu parce que li tax ma koy parce que parfois nit dina damay faj lii te bokkul. que ci à base des plantes ak yeneen la ñoom am na ñu ci gëstu te am na lu ñu ci doon wan yaa a une tradition africaine qui la xam nañ ne am na lu bëri lu ci liggéey te am na loo xam ne boo nekkee ci dëkk am ku la ne mën naa ci di lu mel ni Covid ñëpp am nañ ci wàll bu ñu waxee lii la te ñu insister lu ñu rôle mooy en tant que ñun expert ñu encadré pour que loolu ñuy xool ñuy xool am na aw amul toute la solution fu mu mën a jógee pour ñu baax la moo tax pour man bu nekkee solution africaine la mais on dirait alhamdulilah li mu wax c'est-à-dire que c'est pas parce que nous sommes africains mhm. mais fu solution génne fa la nekk te surtout aujourd'hui nous en tout cas li def actuellement ak l'OMS ak les pays mhm. ku fi indi produit bu war a baax nga ah, nga nga nga consulter OMS OMS affaire li ñu woo ñu xool sa produit xool sa protocole jaarale ko ba nga xam ne ëllëg boo nee baax na kenn du teg baat ok jërëjëf professeur plan de relance économique bu 1000 milliards yi bëggoon nañ professeur Meissa Babou wax si mais euh, jàppal karawaas euh, nañ ko leb rek ba beneen yoon. waaw ah. Euh, ah. dix secondes waaw dix secondes parce que 1000 milliards bi ñoom li ñu tuddee plan de relance économique waaw relance dangay ngay fekk machine bu taxaw nga relancer ko mhm. mais lii du warul tudd sax noonu mhm. liñ bëgg def ñoom mhm. mooy benn plan boo xam ne nii dañ ne ndekete yow te covid bi moo wane ndekete yow ndax pour nga jox nit ñi lekk rek il a fallu 3 mois pour ay kits alimentaires kon y' a problème système de santé bi ñu ne hôpital say professeur Seydi tollu Tamba ne fii amul rajo. y' a problème. Mm-hmm. ils viennent de voir les problèmes. kon seen yow soo nekkee ci benn politique mu tuddee ko noo neex PSE nekk fi defar saxaar defar tali Covid bi ñëw am lu la woon. Mm-hmm. relancé woo da ngay def benn da ngay détourné. yow dañu ko expliqué ci yenn émission <laughs> d'accord merci beaucoup professeur Meissa Babou merci beaucoup professeur Daouda Ndiaye merci beaucoup euh, Ahmed Khalifa Niass wax dëgg yàlla kontaan nañ lool ndax nag bi mooy numéro bi njëkk ci seen émission Kër Sidi ñu dalal ci ñoo xam ne vraiment ay borom xam-xam lañ te ku wax Sidi lamin xam ne xam-xam rek ci la doon dox euh, li mbégte la ci ñun euh, ñuy wax gars yi rek dig daje beneen ay bés incha allah yemoo ko gaaw. Eh, bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi rek ñu dellusiwaat ci seen émission Kër Seydi booy ñu def noonu maman ñu def noonu ok au <laughs>